الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي kon mbokk yi gannaaw ba nu sante borom bi tabaraka wa taala julli ci sangu sang yi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ndokkel di leen wàccee seen wàcciwaay di ñëw ak yéen rek ci waxtaan wi nga xam ne si daxaloon nañ leen ko mu war a dox ci diggante suñu ñaari sëriñ suñu ñaari ustaaz muy al ustaaz eh, Baba jaw wa kadalika al baaxis Abdul Ahad Ñang ñu ngi leen di dalal bu baax a baax a baax di leen ziyaara di leen ndokkeel eh, di leen wax eh, falyatafaddal mashkuran xam naa ñu dugg insha allahu rabbi nuyoo tabarkalla waa kay kon sunu sëriñ sëriñ Abdul Ahad mun nga dugg insha allah nga nuyoo bu ko defee itam Euh, sëriñ Baba Diaw moom itam mu dugg nuyoo ñu door incha allah barakallahu fikum bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bokki groupe waqul ja alxaq wa zahaqa albatil inna albatila kaana zahuqa ñi ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di leen gërëm di am mbégte lool fas yéene ànd ak yéen benn jotaayu xam-xam boo xam ne dañ ci fas yéene wax lañu xam di nuyu mbokk mi nga xam ne moom laa seqal jotaay bi di sëriñ Baba Diaw al di ko jox wàccuwaayam di ko teg palaasam di nuyu bu baax it nag suñu mbokk sëriñ Mouhamed Guèye mi nga xam ne mooy idaara jalsa bi di ñaan suñu borom defal ma tawfiq defal moom mi ma bokkal jotaay bi tawfiq ba lépp luñ fi wax rek mu nekk njariñ defal mbokk mi idaara jalsa bi defal ñu ko ñun ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi alxaafisi li kitaabihi alkarim. alqaa'ilu fi muxkami aayaatihi. inna naxnu nazzalna azikra wa inna lahu la xaafizuun. wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursaliin سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام وسلم تسليما di leen ziyaare di leen baalu xaq Ah, di ñëw rekk di waxtaan ak ah, sëriñ bu tedd bi Cheikh Abdul Ahad di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko tawfiix ak taysiir yàlla sàmm ko aar defal koko defal ñu ko defal ko mboolem jullit ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh waa kay sunu sëriñ sëriñ Abdul Ahad eh, sëriñ Baba Jaw ñu ngi leen di delloo nuyoo bu baax di leen ndokkel di leen tatagal eh, di wax amiin ci ñaan yi yàlla yàlla nangu ñaan yëpp yàlla yàlla defal leen tawfiix defal ñu ko ba li ñu bëgg ci mbir mi yàlla defal ñu ci lu kawe suñ njort bi xormatil quraanil karim kon mbokk yi mu mel ni mawduu bi nga xam ne sii waqul jaa alxaqu tànnoon na ko euh, ne ci la ñuy waxtaane moom mooy an nasxu fi l quraanil ndax nasxu lu am la ci alquraanul karim walla déet ci loolu ñu tànnoon suñu ñaari kilifa yi muy sëriñ Abdul Ahad eh, ak suñu sëriñ sëriñ Baba Jaw mu mel ne suñu sëriñ sëriñ Abdul Ahad moom dafay saxal ni nasx am na ci alquranul karim eh, sëriñ Baba Jaw moom di weddi nasx am na ci alquranul karim kon bu ko defee ñu ñëw déglu leen insha allah kenn ku nekk ci ñoom euh, dalil yi nga xam ne si dinañ ci li nga xam ne si moom ngay saxal walla moom ngay dàq kon xam naa ñu doore ci sunu sëriñ euh, sëriñ Abdul Ahad laaj bi nga xam ne si moom lañ koy njëkk laaj moom mooy ana lan mooy nasxu bu ko defee ñi ngi sàkk mu indil ñu ci taarif boo xam ne si day nekk jaamic naka noonu itam day nekk maanic nga xam ne si lépp lu nasxu làmboo taarif ba da koy dugal waaye lépp loo xam ne itam nasxu da koy dàq euh, taarif ba daf koy euh, dàq waa kay kon ñu xaar suñu kilifa gi ci tontu loolu incha allah waa xam naa kon euh, balaa suñu kilifa googu di ñëw ci tontu li ñu njëkkante ak waxtu wi ñu posé question suñu kilifa gi di euh, sëriñ Baba Diaw waa sëriñ Baba laaj bi nga xam ne itam moom la laaj sëriñ Abdul Hadj moom laa lay laaj mooy nga indil ñu taarif ci nasx taarif boo xam ne si dafay nekk jaamian maanian tafaddal alhamdulillah waa an de ci gàttal euh, buñ ko doon wax daal ci luga mooy al izala wa naq al la izala buñ ko waxee mooy dindi fi dara bun na azalati shams az zilla mooy fi kër gi nekkoon Euh, jant bi ñëw fa ba dindi ko dindi ko fa ker nekkut fa loolu dañ koy wax euh, ci luwa beneen bi di napp la nasaxa alkitaab comme nga jël euh, téere nga jël la nekkoon toxal ko ci beneen téere nasx li ñu tuddee an nusxa waaye bu dee ci usul yu ne ni ñu tuddee nasx ci kitaabullahi alazim bi mooy yëkkati benn xukm boo xam ne xukmu saraan yi la xukm boo xam ne bii ci alquran yàlla moo ko fi teg muy xukmun sariyun nga yëkkati ko fa ci beneen xukm boo xam ne xukmun sariyun mislahu aw xayrun minhu sarahatan loolu mooy nasq ci gàttal nga yëkkati benn atte boo xam ne atte shari la remplacé ko beneen atte charia bu mel ni moom wala bu ko gën mu leer nañ. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ Mouhamed ci laaj bu am solo boobu. ci njëlbeen bala maa ñëw ci sa laaj bi ma wax ne mawdon bi ñuy waxtaanee mawdon la boo xam ne ñun ñaar ñu ko seq ñoo ko mujj seq. mawdu la boo xam ne coolu fees dell la ci téere yi wute bu metti am ci borom xam-xam yi ala marli usuri wa taarix waaye lu ci mën di xew ñun fi ñu sukkandiku ñu ngi sukkandiku ci ñiy wéral ne nas am na ci alquran te su boobaa nag ci kanam tuuti daañu leeral ñi borom xam-xam yi séddalee ñi wax ci nas ñaata xaaj lañ leen séddalee waaye comme rek salaat bi ngir jëkkante waxtu yi euh, nas am na ñaari sens am na ñaari maana dana dana ñëw ci luga dana ñëw ci ci ci ci bil bil maana shar'i bil maana al lugawi bari na lu muy firi bokk na ci li muy firi dana firi ar rafa wal izala mooy dindi dindi dara comme lu mel nekk bu ne nasaqati shamsu azilla yaani azalatu maanaam jant bi dindi na ker gi maanaam euh, bi maanaa dindi na ko kooku dana firi nasx dana firi it rafau comme nasaxtul kitaaba yaani rafaatu aw rufia minhu ila gayrihi maanaam copier naa loolu dana ko firi ba tey waaye bokk na ci li nga xam ne nii maanaam nasku dana ko fi dana ko firi it maanaam lu ñëw euh, la fa nekkoon mu déjjati ko sànni àll sànni ci àll ba loolu dana ko firi moom ci ci maana yu ci la bokk yi nga xam ne daf ko firi ki fa yansaxu llahu ma yulqi cheytaan kooku nas bu day day yor maanaam ibtal nga topp koy wéy ndax li ci borom xam-xam yi bil maana lugaw yi dafa euh, bu ñu ko toppee dana bu ñu ci sukkandikoo ci ñi nga xam ne luga dalee na neex waaye bu dee ci al bil maana istilaahi ngir mu a gudd bu dee ci bil li muy li borom xam-xam yi taarif bi joxe pour mu nekk taarif boo xam ne jaami comme ni nga ko waxee jaami am maani la dañ ne mooy rafu xukmin sharciyin amaliyin jus'i sabata bi nassi bi hukmin shar'iyyin amaliyin juz'i sabata bi nassi warada ala xilaafihi mutaaxir anhu fi waqti tashriihi laysa muttasilan bi loolu ci maanaam mooy mooy yëkkati ab atteb sharia boo xam ne nii atteb sharia boo xam ne nii bu ñuy jëfe la nekkul bu ñuy fas bu nekk xukmu jës yi du xukmu kulli ndax usul yi mooy mooy mooy mooy gëstu al xukmul kulli mais faqi bi ci al mi ngi mi ngi su mi ngi gëstu ci al al al xukmu al jës yi loolu um, jaani bu usul la mu nekk atteb sharia boo xam ne bu ñuy jëf la mu bokk gis yaa di ci maanaam masala mu nekk lu mel ne que tey euh, jox misaal ci farq diggante ak jus yi euh, salaatu ak salaatu julli euh, ab ab jus yi la waaye mi ngi dugg ci kulli yi boo xam ne mooy bi neen maanaam liy cosaan ci lu ñuy santaane mooy lu war bu ne qaayida kulliya ci lay dugg kon dafay dugg ci qaayidatu al wujub su ko defee nag atte boobee nga xam ne moom moom la yëkkati atte bu saxoon la ci texte waaye nag ñu yëkkati ko teg fa beneen atte sharia boo xam ne nii moom it bu mel noonu la waaye mu saxee ci texte te mujj ko nag te mujj ko euh, loolu ñu tuddee euh, ci nga xam ne moo ko mujj ci jamono dañ ko doon yoonal maanaam bi mujj bi mu mujj ñu yëkkati atte ba teg ko loolu la ñu loolu loolu la nas ko di fii euh, saraan su ko defee buñ ne nag loolu nag am na lu muy génne buñ ne rafu foofu bi maanaam nas la bu ne alxukmu shari Euh, foofu kon mooy alxukmu shari al marfu mooy al mansuux alxukmu shari al mutaaxir anu mooy naasix bi te loolu loolu loolu am na am na am na yu ciy génnaat foofu su ko defee nag buñ waxee euh, amal yi dafay day génne itiqaad yi shari yi dafay génne yeneen ci des ndax at yi borom xoo lañ ko sédd def ko ñetti xaaj am na xukmul aqli xukmul xissi xukmul aadi xukmu shari la wax kon shari day génne yeneen yi ci des bi xas comme ni ko borom borom al waxee waaye mu nekk jus yi teg ci sabat ci sabat bi naf yi teg ci kon benn bu ci ne dafay génne eh, yu bokkute yu ndax am na ci yoo xam ne bu demee ci xuduud xuduud nas da nga xam da nga daal di xam eh, ya ca desaat ko defee nag eh, ñu xam ne it nas li indi li gën li gën a indi coow li dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy daa iram daa yaatu woon indal mutaqaddimin ñu xatal ko ci indal mutaaxirin loolu mu indi lépp mooy tawsiatu daairatihi indal mutaqaddimin wa tadiquha indal mutaaxirin loolu mu indi coow lépp bu ko defee ci ndax bu dee ci mutaqaddimun yi boo xoolee ñoom nafq baat bi dañ ko daan jox saas bu yaatoo yaatu loolu dañ ñëw dañ ci ñëw ci kanam saas bu yaatoo yaatu lañ ko daan jox waaye ginaaw bi nag bi bi nga xam ne ñu mujj ñu mujj dañ ko ñëw xatal xatal xatal ko xatal boobu moo génn yu bare bare moo tax sax am lam jam ci diggante tax siis ak nas dañ ci ñëw ci kanam incha allah loolu daal laa ci mën a wax yu mabda iya barakallahu fiikum jazakum allahu anna xayral jaza mu mel nii indil ngeen ñu taarif bu am solo lool bu leer nañ boo xam ne nekk na jaamian maanian taarif ngeen ko lugatan wa kadalika itam taarif ngeen ko istilahan sëriñ Baba Jaw wax na ni mooy al wa naql sëriñ Abdul Ahad indi na loolu waaye mu yokk ci yëpp tabarkalla ci wàllu istilaax bi tamit ni ngeen ci bu leer te moom mooy rafu xukmin sharci bi dalilin sharciyin mislahu aw xayrun minhu ala ma dahaba ilayhi sëriñ Baba Jaw naka eh, Abdul Ahad lu mel noonu indi waaye mu yokk ci itam ni dafay nekk loo xam ne juz'i lay doon dafay nekk loo xam ne tamit amali lay doon te itam dafay nekk loo xam ne tamit ci nas lay ame te itam euh, li nga xam ne si moom mooy nekk naasix day nekk mutaaxir ca la nga xam ne si moom lay mansuuxal kon tabarkalla taarif bi leer na ma sha allah waa kay sëriñ Abdou kon xam naa gannaaw ba ngeen ñu indilee taarif bu leer boobu noonu beneen laaj bi nga xam ne si moom laa ci tofal euh, jëmale ko ci yow mooy sëriñ Abdou Lahad yow ana lan moo tax nga fas ne nasxu lu am la ci alquranul karim loolu ana lan moo tax nga gëm ko bismillahi irrahmani irrahim euh, jërëjëf sëñ Mouhamed ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant bu baax di la gërëm lan moo tax ma jàpp ne nasq am na ci alquranul karim damaa jàpp ne moo wér jàpp ne moo wér ndax sëñ Mouhamed xalaat yu rot ci nasq ak adilla yi koy adillatu yi nga xam ci lañu sukkandiku pour saxal ko xalaat yi ci rot lu mu bari bari bari mënees na ko tënk ci ñeent bi ci njëkk mooy li yahud yi wax ci wàllu nask yahud yi ñoom dañ ko weddi ndax ñoom liñ wax mooy bu nask amee day istilzam bada bada nag bu ñu ko waxee mooy loo xam ne lu ñu yoonaloon la waaye dafa am lu nëbb lu mu xamutoon mu xam ko dindi loolu yoonalaat leneen tug ci seen réer ndax nask ñoom dañ ko dàq itlaqan ndax nee na nasq ñoom li ñu wax mooy nasq benn li xekk li nasq e, li xikmata aw li xayri xikma dégg nga bu fekkee li xayri xikma la ñoom dañ koy jàppe ne abas la maanaam fo fo dafa jomb ci yàlla su fekkee li xikma la it boo xam daa feeñ ñu ci surtout ci wax yahud yi te xamu ko woon njëkk loolu day indi badaa comme ni ma ko waxee léegi nee na dafa jiitoon suñu borom dara ump ko te loolu dafa jomb ci yàlla loolu mooy wax yahud yi te wax juju am na lu koy dàq dëgg ndax mi ngi ñëw ci kanam incha allahu taala kooku mooy benn bi pour maa ngi lay wax li tax ma jàpp ci ni moo gën a wér waxi ñaareel ji mooy mbooloo mi ñu tuddee ay rawafid donte baatu rawafid nag baat la bu siiw ci ni ñu koy wax daa am mbooloo muñ jubloo tooñ di leen tudde noona waaye nag comme rek dañoo taq si ma sukkandiku ci borom xam yi saxal ñoom dañ leen a boole ci kuréel boo dañoo teengal ci saxal nasq ba ba ëppal ca nag ba sax egg nañ ci daganal ija bada di ma waxoon léegi ci yàlla kon ñoom ñoo yahud yëpp boo xoolee seen giseen yu dañoo dañoo dañoo ëppal ci wàll yëpp ba ba wàcc yoon indi ca nag ay wax yu bari yoo xam ne ñu ngi koy askanoo ci Seyd Imam Ali te loola nekkul lu wér bokk na ca la nga xam ne dañ ciy sukkandiku ñoom bokk na ca la nga xam ne ñoom dañ ciy sukkandiku ñoom mu yamhu llahu ma yashaa yu sabbit ci ne léegi euh, buñ buñ buñ bu fekkee ne dafay mel ne kon diggante euh, foofu feeñ na fi almax bu far ak isbaat dindi saxal su ko defee nag loolu lépp na la muy jur la muy jur kon mooy ñoom jàpp nañ ne que ñoom nas ko moom dañ ca teengal ba dugal ci yoo xam bokku ci loolu dana ñuy la koy dindi ma ngi kanam su ko defee nag euh, ci ci ci ci ci nañ sax bay bay bay bay ci xatal gu di wax ne euh, ñoom day mel ne rek ñoom dañuy dañuy saxal loo xam ne dañoo gis ne intérêt nga ca ñu saxal ko rek te yàlla xam nga ne li muy li muy saxal lépp jariñul doomi aadama waaye intérêt suñu borom nekku ci kon kuréel beneen bi ko bi ko ñetteel ci xalaat bi nga xam dañoo saxal ci ne mm, maanaam ci seen wax ci wàllu nas ki ko ñetteel dañ koo ber kenn la mooy abu muslim al asfahani mooy muhammad ibnu bahr bi siwee ci abi muslim al asfahani mu'tazili la bokk ci kibaarul mufassirin nag taalif téere yu bëree bëri kooku euh, dafay daganal na nasq aqlan waaye daf koo dàq sharaan daf ko dàq sharaan am na ñu ne sax nag teereen dafa dafa bokk ci dàq nasq ci alquran ni amu ci surtout nag yu sukkandiku ci aaya bi nga xam ñiy dàq bari na luñ koy indi mooy la yaatihi al baatilu min bayni yadayhi wala min xalfi tanzilum min hakimin hamid su ko defee ci ne atte yi kon yi suñ borom saxal du yàgg mukk bañ ibtaal ko yan yan ayatu nasqi bii yi ñëw ci moom daf ko yan ci taxsiis donte am na farq bu jaar ci diggante nasq ak taxsiis sarkasi euh, farq bu jaar ci di éggal na ko ci ñaar fukki mbir xëy na jumur bu ñu waxtu mayee lañ ca mën a dañ ko Euh, mu des nag bi ko ñeenteel kon ñett ñi ma wax yépp ànduma ak ñoom bi ma bi ko ñeenteel mooy jumhurul ulama ñooñu ñoom liñ wax mooy jumhurul ulama liñ àndal mooy liñ wax mooy dagan na nasqa aqlan wa wuquuhu shar'an li adilla yoo xam ne nii euh, man dina ndax bokk na ci laaj bi dama koy indi incha allah léegi nag bala maa indi adilla yooyu dinaa wax ne kon bu ñu séddalee ñi wax ci nasq mënees na ko def ñeenti xaaj yahudi rawafidi moo abu muslim as-sahani bi ak jumhuru ulama sëriñ Baba Diaw du ma ko yëgal mukk ci ñaari ñu njëkk ya muy yahudi ak rawafidi mais mën na ko dugal kon ci <laughs> ci <laughs> maanaam abu muslim xalaatu abu nga xam ne ñi jamononteeg ñoom ci kanam tuut daa ci andi bu may détaillé bari na ñoo xam dañ ko radd ci muasiruhu muasiruhu yoo xam ne yow jamono ci wax bu mu xam ne dañ koy jàpp ku ci génn ci ijma radd nañ ko radd yu métti métti kon jumhuru ulama ci la ci ñoom la sukkandiku ci seeni wax ba tax ñoom dañoo daganal nasq ci alquran ndax illa yu bari illa bi ci jiitu mooy jëfi yàlla kenn du ko illal ci ay bëgg-bëgg suñ borom mën naa digle dara ci waxtu dindi ko ci beneen waxtu tere ndax moom moo gën a xam yiy jëriñ ay jaamam allahu aalam bi masaalihil ibad kooku mooy benn ñaare ba mooy teg si alquran ak sunna dafa tegte na nasx dagan dagan mu tabbi bokk na ci bi ñu indi wa ida baddal na aayatan nakaana aaya te xam nga euh, aaya boobu buñ buñ buñ xuusee ci leeral ko kon suñ borom day wax ci aaya boobu ne wa ida baddal na aayatan makaana aaya suñu wàccee ab aaya teg ko palaasu beneen aya mu wettee ko maanaam ñu folli ak jàngam wala ñu folli ak atteem te yàlla kat moo gën a xam waj wallahu alam maa yunazil loolu jumla yi bu fier dañuy yeddi ñi nga xam ne nii am na lu wax ji moom mooy ci siyaqul kalaam yàlla gën a xam li gën a jëriñ ay jaamam loo xam ne seen yu da caa nekk bu bu suñu borom defee loolu qaalu innama anta muftar ñi nga xam ne ay yéefar lañu doon ñu réer dañuy wax yow muhammad innanta yaa muhammad mutaqawil kadima ala allah da ngay waxal yàlla lu amul yàlla ne bal aktharuhum la ya'lamun kon ci aaya boobu suñu borom suñu borom daa ni li ëpp ci ñoom kay dañoo xamul dañoo réer xikma bi bi suñu borom di di xikmatullahi ci ci loolu qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq wax leen yow Muhammad ne jibril moo ko wàcce al amin mu bàyyi ko ci borom bi subhanahu wa taala bi nga xam ne mooy ahkamul hakimin bi sidq wal ngir mu saxal ñi nga xam ne dañoo gëm ca la nga saxalal leen loo xam ne ay ay ay firnde yu leer da caa nekk ba seenu ngëm yokk waxu dama wa bushra lil muslimin mu nekk ak njub nekk eh, ñi nga xam ne ñooy ahlul islam kon ci aaya boobu bokk na ci addila yi ñuy sukkandikoo ba wax ne kon nasq mën naa am ci téere bi ci ci ak beneen aaya bi nga xam ne ñëw na ci suratu baqara andi coow li mooy man maa nansax min ayatin aw nunsiha naati bi xayri aw mitliha yàlla ne saa bu ñu war sa saa boo xamee ne euh, maanaam sax min ayat aw nun si maanaam saa boo xam ne dañoo watte ay am ab aaya soppi ko beneen atte wala ñu fàtt ñu far ci sa sab xol yow Muhammad naati bi xayri min ha ñu andi bu ko gën bu boo xam moo gën moo moo gën ci yéen ñi ñi gëm yàlla di jullit yéen ñi xam dañoo gëm yàlla gën leen a ëppal njëriñ ci àdduna benn muy dindi leen ab coono wala mu yokkal leen ab yoon ab tuyaaba ndax xanaa xamul leen alam taalam anna allaha ala kulli shay'in qadir xanaa xamul leen yow yow mi ñu waxal yàlla dara dara tawu ko kon yooyu ci addila yi nga xam ne tax na ci la sukkandiku ba tax ñu wax ne ñu bari na bari na addila bari na waaye damay damay damay sàmmante waxtu yi ma jumhuru ulama a sukkandiku te ñoom liñ sax mooy nasx mën naa am ci alquran. waa kay sëriñ Baba Diaw laaj bi nga xam ne si moom laay tofal ci laaj boobu noonu jëmale ko ci yow mooy ana lan moo tax yow nga fos ne nga gëm ne nasx amul ci alquranul karim itlaaqan ana lan moo tax ngay dàq loolu ndax dangaa jàpp ne nasx bu amee ci alquranul karim loolu ayib lay doon ci alquranul karim walla dangaa jàpp ne loolu xayru mumkin aqlan mooy dangaa jàpp ne xel dafa nanguwul nasx di am ci alquranul karim walla déet wala lan moo tax daal yow nga jàpp ne nasx amu ci alquranul karim loolu ñu ciy sàkku sa dalil waaw comme li nga ma laaj li tax ma dàq ne nasxa amut nasxa amut ndax alquran moo dàq ne nasxa amut ñaareel bi tim nag may laaj ndax xel nangu na ko loolu xel nanguwu ko te boo gisee sëriñ bi ci waxtaanam moom ci boppam dàq na nasx ndax bu ñëwee ci ci taarifam bi mu doon taarif Euh, nasx bi mi ngi wax taarif ba ci indi ne rafa xukmin shariyin sabata bin nassi bi xukmin shariyin sabata bin bin nass kon xukm boo xam ne bii dafa nekk xukm shari alquran boo xam ne yàlla da ko indi ci téere bi beneen xukm boo xam ne bii alquran la ñëw yëkkati booba nekk fa ca fin ba mi ngi wax ci fin wu kii bi euh, ci fin wu nu mu tudd euh, taarif mi ngi wax naan warada ala xilaafihi mutaaxiran anhu kon xukm boobu warada ala xilaafihi mooy dafa ñëw contre wuuteeg xukma ba ko jiitu woon te mujj ko te sunu borom wax ci alquran afala yatadabbaruuna alquran ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا kon loolu foofu liñ fiy déggee na laa yujadu fi alqurani ixtilaaf kon foofu moom ci taarifam rek wane na na nasxu amut beneen bi maa ngi dégg muy tudd al bada bada aussi bokk na ci liy wane ne nasxu amut ndax euh, bada mooy dafa mel ni yàlla xam-xamam dafa des te axaata bi kulli cheyin ilman xadiman wa axiran kon yàlla xam na la jiitu xam lu mujj lépp kon amul lu koy réere ba tax muy indi dara ba ca biir na ah bii daal baaxut naa ko remplacer beneen loolu mooy bada loolu sunu borom jomb na ko istixaala la ci jëmm sunu boroom subhanahu wa euh, beneen bi ci des euh, mi ngi indi benn aaya wala boog ñaari aaya yoo xam ne yi ñoom moom lañuy ñuy sukkandiku ci nasxu mu yamxu llahu ma yashaau wa yusbit aw wa yusabbit wa indahu ummul kitaab boobu euh, bu tegtalee nasxu euh, tegtalul nasxu ca alquranul karim waaye beneen nasxu lay tegtale bayn alquran ak yeneen téere yi ko jiitu woon ñu ngi ñëw ci beneen audio waaw dama tegu taxawoon doon dégluwaat euh, comme dafa arrêté wutoon ma ko doon dégluwaat ma ñëw ci moom man li ma ko dàqee samay ci alquran lu ma ko indi moom li koy saxalee moom lay yàq ba pare sooge indi man li ma ko dàqee ci alquran waaw moom ñu ngi koy saxalee du weesu yi muy indi nii yamxu llahu ma yashaa wa yuthbit wa indahu umul kitab ñaareel bi ci alquran wa ida baddalna ayatan makana aya wallahu alam bi ma yunazil ila axiri aya ñetteel bi mooy ma nansax min ayatin nunsiha nati bi xayri minha aw misliha ñett yooyu mooy dalilam ci alquran mënul indi ñeenteelu dalil ci biir alquran ñett yooyu luñ ci wax bu njëkk bi bu mu njëkk wax Uh, yamxu llahu ma yashaau wa yuthbit wa indahu ummul kitaab uh, sunu boroom dafay effacer lu ko neex indiwaat lu ko neex loo loolu ci aalamul xalq lay wax aalamul xalq yamxu llahu ma yashaau wa indahu ummul kitaab da nga gis koo xam ne kii dafay wér ba si yàgg yàlla effacé wér googu def ca feebar ki gis ku ñàkk ba mu yàgg yàlla dindi ñàkk googu def ko mu am ku doon dund ba mu yàgg yàlla effacé loolu def ko mu dee ku meloon nii ba si yàgg yàlla effacé ko changé ko leneen yooyu yëpp yamxu llahu ma yacha jeex na waaye loolu yëpp yàlla di def ci jaam yi ak ci àdduna bi loolu yëpp xamoon na ko te ma ngi ko garde fan wa indahu fi ummil kitaab man nga ca lawxul mahfuus xam na ko gàdde na ko teg na ko waaye moo koy jëfee nii ci biir jaam yi di changé di changé yamxu ma yasha wa yusbit boobu mooy bi nga xam ne moo njëkk beneen bi ci des wa ida baddalna ayatan makana aya wallahu alamu bima yunazil ah, loolu ñoom wax nañ ne sabab bi aaya bi wàcce mooy kufaaru Qurayshin ñoom ñoo doon wax naa ni yonent bi dafay foye saabaam yi ndax tey mu indil leen dara bu ëllëgee mën leen noono du boobu jël leen bi ba yàlla wàcc loolu haasha lillah ah bi di def loolu wala boog yàlla di defee noonu aaya wa ida baddalna ayatan makana aaya wallahu a'lamu bima yunazzil qaalu innama anta muftar bal aktharuhum la ya'lamuuna ñooñu Quraysh kufaaru Makka la xamuñ dara ci adyaan yi nga xam ne moo jiitu woon kon hum la yaalamuun aaya buñ ko waxee nag bul jàpp ne aaya alquran la aaya bëri na lu muy firi aaya dana firi mujiza haadihi naaqatullahi lakum aaya aaya dana firi mujiza wa laqad aatayna muusa tisa ayatin bayyinaat yooyu yëpp ay kéemtaan la aaya dana firi ayatu takwiniya comme asamaan seeg suuf seeg demee noonu yàlla moo wax ne wa ja'alna al layla wannahaara aayatayn wa ka ayin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruuna anha aaya dana firi loolu aayatim dana firi aaya tadwiniya comme faqaraat yi wala jumal yi ñuy bind ci alquran kii eh, numéro yi di ko séparé boobu tim aaya la tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq kon bu ko jël rek yemale ko ci benn côté te boo xoolee wa ida baddalna ayatan makana aya wallahu alam bima yunazil qaalu innama anta muftar kooku waxut alquran ak alquran alquran aaya mojisa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ak mojisa yonent yi nga xam ne yu ko jiitu woon parce que yonent bi def na fi benn mojisa ñëw ñu weddi ko na ko du dëgg defoo ko bi mu defee isra ak mi'raj dem na dem na baytul maqdis su guddi gi dem kii ñëwaat bi ñoom ñëpp dañ koo weddi lool moo gisa la ah wax nañ ko na ko defal ñu nangam nangam wàcceel ñi téere ci ko asamaan si wala nu'mina li ruqiyika hatta tunazila alayna kitaaban naqra'uhu loolu yëpp wax nañ ko ko pour mu indi leen ay aaya ay kéemtaan te am na yoo xam ne buñ ko bu ko indee sax du tax ñu gëm ko kon loolu tax aaya yooyu ñu indi ñu ne ko innama anta muftar yi ngay indi yëpp ci ay kéemtaan yëpp dangay dangay da ngay da ngay fenn dëgg waaye ñoom lu tax ñuy wax loolu laa yaalamuuna ndax ñoom ay kufaaru quraysin la xamuñ la xewoon ci adiyaan yu njëkkee bu doon yahudi lay waxal du leen wax laa na ndax ñoom xam nañ li xewoon ayaat yi ñu daan gis ci Muusa ak ci Isa waaye ñi nga xam ne xamuñ loolu nag jàngun téere yahudi xamuñ loolu kon ñoom laa na kon aaya bi mojisa la waaye nekkul aaya quraaniya boo xam ne dañ koy jàng ñu ngi ñëw ci beneen eh, kii bi beneen bi ma nansax min ayatin aw nunsiha nati bi xayrin minha aw misliha alam taalam anna allaha ala kulli shay'in qadir ah, aaya boobu da nga koy commencé ca gannaaw maa yawaddu alladina kafaru min ahli alkitaabi wala almushrikina an yunazzala alaykum min xayrin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadli azim soo ko indi maa nansax min ayatin aw nunsiha xoolal fa mu commencé maa yawaddu alladina kafaru min ahlil kitab wala almusrikina ahlul kitab euh, bokkaalekat yooyu bëgguñu yàlla wàcce aw yiw ci yonent bi maa yawaddu alladina kafaru min ahlil kitab wal musrikina an yunazzala alaykum min xayrin min rabbikum ndax kéemtaan yooyu yàlla di wàcce wala boog aaya yooyu yàlla di wàcc ci yonent bi su ko wàccee ci yonent bi dafay nasx li nga xam ne moo nekkoon ci téere yahud yi ndax ñoom xam nañ ne seen téere yàlla nasaxal na ko téere muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy bi nga xam ne moom mooy bi wér donc kon ñoom ñooy wax ne maa yawaddu lazina kafaru min ahli kitaab wala mushrikiin ñoom bëgguñ loolu kon bëgguñ ko nag xam nañ la ca mooy day nasaxal seen téere moo tax yàlla ñëw ci aaya bi ci topp ne maa nansax min aayatin lépp loo xam ne nasaxal nañ ko ci aaya yi xam ne nekkoon na seen téere yooyu ñoom yahuud yi ñoom ñuy wax ne maa yawaddu lazina kafaru min ahli kitaab wala mushrikiin ñoom ñi nga xam ne bëgguñ yàlla wàcce aw yu ci yonent bi muy yàlla wàcce aayaam yooyu ci yonent tamit ndax bu ko wàccee dafay nasq seen aaya yi nga xamoon moom jàng ci tawraat ak injil yooyu la yàlla wax ne maa nansax min aayatin lu ñu nasaxal ca la nekkoon ca yahood yi aw nun siha wala ñu fàtte loola lu tax ñu la koy fàttaloo ndax dafa yàgg ndax loo xam ne matoon na ay téeméeri euh, ay ñetti téeméeri at juróomi téeméeri at junni at xam nga loolu yàgg na ba nga xam ne sax fàtte nañ ko aw nun siha bu boobaa natti bi xayrin minha luñ fa jëlee rek dinañ la indi lu ko gën aw misliha wala lu mel ni moom mooy li nga xam ne ci affaire ci ci mbiru mbir yi nga xam ne euh, ñoo ko ñoo ko bokk ahkaam yi nga xam ne ñoo ko bokkale mënuñ koo wuute ndax yu njëkk ya danga gis koo xam ne daan takk yaayam gis koo xam ne daan boole ñaari euh, ñaari bayna uxtayni nga takk ko loolu bu ñëwee nag bu ko effacé day indi lu ko gën wala boog mu fekk koo xam na ki danaan takk normal mi war a eh, takk aw misliha mu bàyyi ko noonu kon yooyu la ñuy wax maanaam sax min ayatin nekkul alquran ak alquran waaye alquran la ak téere yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon kon lii nekkul luy nasaxal luy luy wane ne alquran nasax mi ngi kon ñoom ñu ngi fi indi rek laa laa indi laa dindi man nag su ma paree dinaa la indi li nga xam ne mooy wane ne alquran ji nasax amu ci ay ayatul quran yoo xam ne du fi jeex waa kay jërëjëf sëriñ Abdul Ahad ci tontu yi am na solo lool macha allah mu mel ni sax laaj bi nga xam ne si maa ngi ko doon bëgg a tofal sax ci laaj bi ma la laajoon jëme ko ci yow dafa mel ni xaw nga cee tont te mooy ndax bu ñu waxee ni nas am na ci alquranul karim est ce que loolu du tekki ne li ñuy tuddee badaa muy ñàkk xamoon dara ba yàgg nga xam ko ak li ñuy tuddee adamul xikma muy ñàkk xikma est ce que loolu kon duñ ko askanele borom bi tabaraka wa mu mel ni euh, yooyu indi nga ci ay tontu naka noonu itam euh, feeñ na ci sa tontu li wax nga ni euh, ñi nga xam ne si ñoom ñooy wax nasx moom mooy moom mooy ñi nga xam ne ñooy dàq nasx mooy yahuud yi ak ñi nga xam ne si ñoom ñooy ñoom lañu tudde ar rawaasub ak kii nga xam ne si moom mooy abu muslim al isbahani naka noonu itam wax nga ni yow yaa ngi ànd ak jumhurul ulama nga xam ne ñoom dañoo saxal nasx mu bokk ci adilla yi nga xam ne si indi nga ko aaya bii di wax ne wa ida baddalna ayatan makaana ayatin wallahu aalamu bima yunazzil qaalu innama anta muftar naka noonu itam aaya bee ca suratul baqara di wax ne maa nansax min ayatin aw nunsiha nati bi xayrin minha aw misliha waaye fii may wax rek ne chia yi muy rawaafid yi lii ngay wax ñëw na ci manaahilul irfan bu zarqaani waaye dëppoowul ak li nga xam ne chia yi moom la ñu gëm chia yi li ñu gëm moom mooy nasx am na ci alquranul karim ki ñuy wax euh, sayid xoo i moom li mu gëm moom mooy nasx euh, benn aaya rek moom moo wér ci nasx ci alquranul karim euh, waaye chia yi moom li ñu gëm moom mooy nasx am na ci alquranul karim xam naa kon ñu ñëw ci oustaz Baba Diaw incha allah waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Mouhamed faw nga may ma ma tontu mbokk mi bala ma bala maa jàll euh, bala liñ naan tungandil teew ñuy natt ci ëkk euh, boo gisee ma doon bañ mooy ma doon bañ a jiitu mooy si ne moom euh, maanaam damay damay damay li man liñ naan damay peer njaayu maanaam day bëgg bàyyi ma jiitu mu toppaat ci bala bu ko defee nag de di waaye xam naa li xam naa li def léegi mu ne léegi ci biir taarif bi rek wuute am na ci dafa sëñ sëñ bi da ngaa juum nga jéggal mooy da nga jum bu baax a baax a baax a baax njumte gi fi mu feeñe mooy faw nga xam d'abord lan moo xikma bi nekk ci nasx ndax loolu moo leen muy dindi lënt mu mu nekk ci xelum ñu baree bari bay wax loolu daanaka barek li ëpp ci ñiy wax ñiy dàq nasx loolu ngay wax la ñuy wax kon nasx ci boppam faw ñu xam ma bi ci nekk lan la xikma bi ci nekk mooy tuxal doomi aadama jële ko ci xaala yóbbu ko ci xaala bu gën a mat bàyyil xel ci ne it nag lépp ci yàlla la jóge lépp ci yàlla la jóge yàllay def te yàlla la yusalu amma yafaalu wa hum yusaluun yàlla mooy def lu ko soob kon tuxal doomi aadama jël jële ko jële ko ci xaala yóbbu ko ci beneen xaala min bi shaklin tadriji loolu mooy nas bokk na ci ndax xam nga ne mos suñ borom subhanahu wa euh, bi muy bi muy yoon bi mu sàkkee jaam ñi yebal ci ñoom ay ndaw ndaw yooyu dañoo indi ay sariya ba ci sariya bi ci mujj mottali sariya yëpp di sariya sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam léegi nag doomi aadama mi ñu yóbbu ci moom yàlla da ko bindee noo xam ne maa ngi lay toujours maa ngi lay wan pour dindi li nekk sa bopp bi noonu pour nga jàpp ne loolu ixtilaaf da ci am loolu lay dindi nii pour wan la xikma bi nekk moo ndax xam xikma bi xikma bi mooy tax loolu dañ loolu tax wax lii may wax nii léegi doomi aadama ni ko yàlla sàkkee dafay wëlbati comme ni gone di wëlbati ko fi adwaarin muxtalifa li kulli dawrin min hadi al adwaar xaala tunasibuhu maanaam xa dawru bu ne dana am xaala bu dëppoo moom bu bokkut a xaala bam mu doon dund ci sa dawru bu passé doomi aadama yi mbindeef bi leen suñu borom di lay doog a sàkk ñuy am booba dañoo mel ne alwarit awala ahadihi bil wujud nekk ku simple ku am sasaaja ku am basaata ku am doof ku am jahala am na lu ñuy jëflanteeg moom ñu tàmbali di taxawul jóge ci ahdu boobu ruwaydan ruwaydan di romb ay ay ci yoo xam daf koy romb ay gaar ay mbir gaar yoo xam ne muxtalifa la jóge ci réerum xel ngum bëgg réer tooyug waxambaane doyadig maanaam doyadig doyadig doyadig nit doole doole ji ji nga xam ne moom lay feeñ di di léeg-léeg mu yëg doole wuute yuy di am dami di di gaar doomi aadama ci xaalaat muxtalifa nag moo laaj nag mu am ay sharaa yi muxtalifa yoo xam ne nii dafay dépend dafay jiida doomi adama ngir doomi adama du amul lay léegi nag bi monde bi eggee nag ba ñor ba mat ba na ko yàlla bëggee ci gox yépp population yépp mat suñ borom ci la andi diina ji mujj moo diin yépp benn diin mboolem lu doomi adama laaj lépp mu dajale ko ruwam laaj ko yaramam laaj ko xam-xam ba mat diina ja mat mu andi nag diina ji mottali lépp diine juju nag yàlla da caa lëmas mboolem lu doomi aadama sax ci ci ci mboolem ni jamonoy doxi noonu doomi aadama ni mu ko yittewoo nag loola bokk na ci li xam tax mu yoonal loola kooku mooy benn nga xam ne dafay ñëw ngir di dëppoog doomi aadama ci lam bëgg ci ca nam ca nam koy jiidee ak nam koy woode wane aw yoon waxam ci lay jaar kooku mooy kooku mooy kooku mooy benn ñaareel ba ci tax nañ xikma di am ba nga xam xikma bi nekk ci nasq ba tax mu mën a dindi wuute yi ngay wax nii mooy suñu borom daf ci daf ci daf ci jàppandal jaam bi taxfif wa taysiir moo ci nekk li borom téere ba doon wax ne wa kullu ma saqata anhu yufa li usri wa diinu yusrun lutfa yàlla dafa yeb yàlla yuridu la bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla li mu bëgg ci ñun mooy yusru waaye bëgg ci ñun ak usru te kon bu yoonalee dara nasq am kon loolu dafa ñëw ala sabili taxfiif wa taysir ba ca waat mooy nañ ci yoonal gi ba léegi ci ci ci xikma bi nekk bay dindi wuute googu muy wax noonu te amul euh, amu ci mooy suñu borom subhanahu wa léeg-léeg euh, dana yoonal loo xam ne léeg-léeg dana nekk ci anam goo xam ne dafay diis ci jàmm bi dafay diis lool ci jàmm bi ci mu kàllaf yi ngir mu nattu leen ak nattu seenu dëgg fan la nekk te loolu feeñ na ci euh, aaya bi nga xam ne bi mu wàccee wa in tubduu maa fi anfusikum aw tuxfuuhu yuxasibkum bihi Llaah fa yaxfir liman yashaa wa yu'adhibu man yashaa aaya noonu rek ci la juriñ am benn xaraj bu bu taratar waaye nag bi nga xamee ne nangul nañ yàlla wammatal ko te suñu borom wàcc aayat bi dëggal la nekk ci seen xol amana rasul bi ma unzila min bi na ba jeex ci la andi nag la yukallifu llahu nafsan illa wusaha mu taxfifal leen ndax da bëgg wax ne kon suñu borom leekat daf mu yàgg mu génnaat kon dafa ay ay waxam moo wute wax ci saa si extrêmement grave lu garaaw lu garaaw la waa wax la ca desaan mooy lan mooy man laaj bi may laaj fii sëñ Baba wax bii mu leeral nii ak li mu leeral nii kan ci mufassiroon yi ala maril usuri wa taarix moo ko firee nii kan ci mufassiroon yi ala moo ko firee nii te indil ma texte bi nag texte firi ba loolu laa soxla incha allah. waaw ma wax ne aaya bi mu indiwaat di ko di ko radd man bala may ñëw di leeral sax lee mu wax ci bi dabaddal na ay ma ay man ay laaj question laa koy tural kii ndax su say lim naan léegi li nga indi di ko saxal. moom ma koy rek yow li nga indi di ko saxal moo nekk exact ci téereb ñi koy weddi ndax am na Abdul Jabbar euh, ku na Abdul Jabbar ku taalif téereb laa nasxatal am docteur Ahmad Hijazi it ci ci ci laa nasxatal Quran am bi exact wax jii ngay wax lay indi wax jii ngay wax képp mooy li muy indi mooy day daqa min ayatin ji aaya min aaya boobu istilaax boobu noonu rek min ayatin bi ndax am na fenn maanaam ban ban dalil ngay sukkandiku ci ne min ayatin juju jublu ci ayat alquran waaye mi ngi ci jublu maanaam téere min aaya la wax maanaam sax min ayatin léegi min ayatin boobu dama bëgg nga andi ma dalil bu leer buy tegtale ne téere yi jiitu woon lañ jublu waaye jubluñ ci benn ayat alquran ak itam loolu boo ko leeralee ba noppi nga wax ma ban téere ci téere yi mu fassiroon yi ñoo ñoo ko ñoo ko leerale noonu maanaam ci ñi ci te nga wax ma kan ma ko ak ban paas la nekk dama ko soxla eh, bi xam naa ne kutub yi ngay soxla ak borom xam-xam yi wax ci lii dama baaxoo wut di wax di tudd ay tura ki téere su fekkee ne am naa alquran waaye ci fin ba dinaa la jox turi borom xam-xam yeeg téere yépp ndax am na ku ma jëwee loolu na man sama xel rek lay waxee waaye duma wax li ci nekk ci téere yi su ma liirutoon li nekk ci téere yi du ma mën a waxee sama xel ndax sama xel waxee wu ma sama bànneex li may waxee ci téere yi laa koy jëlee donc euh, moo tax aujourd'hui incha allah li ma jëlee téere yi ma jëlee ak borom xam-xam yi ci wax yëpp incha allah dinaa leen ko àddu ci feeba waaw léegi nag après soo bëggee man comme man euh, naqdu naa ayaat yi ngay indi maanaam sax yamxullah wa ida baddal na gis nga maanaam sax min aaya bu nee ba ci fin ba aw nunsiha nati bi xayri minha aw misliha alam taalam anna allaha ala kulli cheyin qadir gis nga foofu Eh, am na ci borom xam-xam yu ko toj toj bu neex alam taalam anna allaha ala kulli cheyin qadir te waxut alam taalam anna allaha alimun hakim ndax su fekkoon na nasx ayat quraan ayatu quraan ya la li gënoon a jub li gënoon a neex mooy alam taalam anna allaha alimun hakim ku xam li muy def la ci am xereñ la waaye aaya bi aaya kawniya xaariqa la moo tax qudra moo baax foofu alam taalam annana ala kulli cheyin te alquran bokkul ci asya asya yi la alquran ci aalamul amr la bokk te asya chey lépp loo xam ne chey la maxluuq la te alquran laysa maxluuqan kon laysa bi cheyin fa huwa min aalami al amr wa kadalika awxayna ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitab wala al iman kon alquran amr la waaye du chey kon alam taxlam anna allaha ala kulli shay'in qadir kon kooku aaya boobu yàlla lay wax ayatul xaariqa la mooy mujizaat yi nga xam ne moo amoon ci yonent yi njëkk ya moom la yàlla lay nasaxal ci mujiza yi nga xam ne moom la sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am ma ñëw ci li nga xam ne nag mooy aaya yi nga xam ne mooy dàq ne nasaamu ci alquran yow yow indi nga fi ay téere dina xaw ma xaw ma nan xijaaj xaw ma nangam ne loolu lañ wax ba pare di ma ko laajaat <laughs> Cheikh Abdoul Ahad waa tontu naa la mi ngi noonu indil naa la ci fin wu fin yu fin wu kii bi fin wu aaya bi alam ta'lam na Allaaha alaa kulli seen qadiir boo dégloo audio bi jiitu yaakaar na dina ko dina ko leeral te bi ma koy leeral sax jotaguma woon a déglu audio bii ngay wax yàlla xam na ne dama koo leeral ba pare soog a déglu sa audio bi ma wax ne lii mu leeral nii mu fassiroon yi yëpp dañ ko dàq mu fassiroon yi ma xam yëpp dañ koo dàq ci leeral almuraad bi aaya ci suurtu baqara bi jiitu ak leeral dilaalaat yi muy tegtale day tegtale nask euh, ci dalal yu leer leen jëlal ku mel ne ibnu jarir at tabari ki nga xam mooy cheikhul mufassirin ci tafsiru ayat maanaan sa min ayat am nusiha nga xam ne moom xamoon na ne lii la man man xamoon naa ko ma nanqul min xukmi ayatin ila gayrihi fa nubaddiluhu wa nugayiruhu wa dalik an an yuxawala an yuxawala alxalaalu xaraaman wal xaraamu xalaalan mooy du ñu toxal atti ab jële ko ci atte boobu yóbbu indi ci indi ko yóbbu ko ci beneen atte sotti ko dag muy lu mel sotti dagg lu xaraam dagan man euh, sotti lu lew la muy lu dagan wala lu xaraam la mu nekk lu dagan ñoonu la ko toppee di wéy di leeral ba egsi ne daalik ma ana nask loolu mooy maanaam nask ci aaya bi moo xam nask ci atteem la wala mu soppi ko wala ma ida fasraun ida nusiqa xukmuha fa xuyira wa buddi la maanaam soppi ko daal noonu la ko toppee di ko leeral ba mu sës kon loolu euh, même sax boo jëmee ci madrasatu euh, al i'tizal sax ñoom loolu lañ loolu lañ jàpp nasqul ay yaani izala izalatuha boo demee ci Qurtubi it loolu la andi mooy lan aaya bi dafay tegtale mashruiyatu nasqi ayatil quran teg ci nag maarifatu hada al baab akidatun wa faidatuhu azimatun la yastrani an maarifatihi al ulama muy baabu nasq baabu nasq bi kenn mënu ko ñàkk wala yunkuru illa al jahalatu al aghbiya dem xurtu bi dem na bay wax ne ñu réer ñi nga xam dañoo gàttaxel ci ko ñi nga xam ne xamuñu lima yatarattabu alayhi min an nawazil fi al ahkam wa maarifati al halal min al haram kon naasix ak mansuux kenn du ko dindi ci alquran man li may laaj li li li li raar ci man kay mooy tafsir bii mu leeral nii mi ngi koy fekk ci téere yi la nasxatil quran bi benn da nga ko ca fekk exact wax ji da ñëw na ca bu Abdul Jabbar bi wala docteur Ahmad Hijazi bi léegi nag bëgg naa mu leeral ma moom ci boppam lii mu leeral nii ci ñaari aay yi ci ban tafsir lañ koy fekk bëgg naa ko. fii lañ ko soxlaa nag ndax fii lay ñoree foofu moom day jaxasoo fii nga war a booy débat nag da nga war a war a genn ñor goo xam ne loo wax da nga koy mën a tawsiq ndax lii da yomba trop bi fi man wax nii su ma sukkandu xam yow fi ne nga maa tegal xel fi bu ñuy sukkandu ci xel rek diinuna mabniun ala naqli la ala munasibati al aql ndax lii ngay wax man gis naa fañ ko bind yi ngay leeral yëpp gis naa fañ ko bind dama ko romb jàll ndax euh, yor naa addila yu koy dàq ndax egsi ci mais li ngay wax nii man man li ma bëgg daal mooy nga nga taw nga indi ma page bi pour nit ñi xam fi mu nekk loolu loolu moom loolu moom daa ci toog a ñoom ñoom asalaamaaleykum wa gis nga yi ngay wax nii détails yi ngay wax nii détail la yooyu fekk ci kutubu kutubu maanaam ñi na ñi naan laa nasqatul quran Abdul Jabbar da nga téere bi da ko ci fekk mooy laa nasxati quran bi da nga ko fekk ci téere Ahmad Hijazi bi laa nasxati quran bi loolu man maanaam exercer wala mais am na téere boo xam ne da ko def benn par benn deta maa ngi maa ngi tiim téere boobu dama lay xaar léegi li ma bëgg wax foofu mooy euh, maanaan sax mit man tafsir bii nga joxe nii ci maanaan sax min ayat tafsir bii man xam naa ko gis naa ko baba su ma ju teg naa ci mais loolu dama ko jëpput li ma jàpp mooy li nga xam ne ala mari uswata mufassiruun yi nga xam ñun yooyu lañ leeral ci aaya bi lañ wax ci ay weesuut maa nan sax min ayatin aw nunsiha maanaam sa suñu wotti ab aaya atte benn aaya soppi ko andi beneen aaya wala ñu far ko ci sappal yow muhammad dañuy andi bu ko gën wala bu mel ne moom naati bi xayrin lakum minha ayyuhal muminuun gën leen a jariñ ci àdduna ak loolu la léegi nag euh, den yo yokkal ab yool fa suñu borom teg ci nag alam taalam comme nun koy leerale ne bu fekkoon ne ayat alquran ma min min ayatin buubu war nga ci ñëw laaj naal ab laaj ci kaw léegi min aaya boobu ndax euh, al uslubul quran yi ndax dana jëfin ko min aaya jublu ci yeneen yeneen téere yi ci des loolu mat ab laaj bu am solo boo xam dafa am dafa am sew sew bi ci nekk léegi mu ne alam taalam anna allaha ala kulli shay'in qadir alam taalam ayyuhal muxaatab anna allaha alimun hakimun qadirun foofu sax leeralaa na ko ci ala kulli shay'in qadir yaani anna allaha alimun hakimun qadirun laa yasduru minhu illa kullu xayrin wa ihsan lil ibad loolu mooy tafsiru bi nga xam ne nii moom lay gis borom xam di ko leeral loolu kon eh, boo ne boo indee dara wax ko tam doon lu wuuteeg tamaaman ndax man danaa delluwaat sax ci abu abu muslim al asfahani bi pour leeral ni gaa yi dajjee ci même ay bii nii. waa kay jërëjëf Serigne Baba Diaw ci tontu yi tabarkalla euh, mu mel ni yow yow daal dàq nga nafx itlaqan ci alquranul karim euh, ba wane nga ni nafx bu fekkent ni si dañoo wax ne am na ci alquranul karim loolu moom yastalzimul bada wa adamul xikma waaye ci sa biiri wax itam fii nga wax ne aaya alquran yii nii nii bu ci nekk indi nga ci tafsil wax ne wa ida baddalna ayatan makaana ayatin wallahu aalamu bima yunazzilu qaalu innama anta muftar nga ne aaya yooyu aaya foofu noonu aaya ci boppam nekkul rek ne nas quraan yi lay teg aaya buñ ko waxee am na ay maana yu bari nga wane ne fii ne fii nii tekkiwul nas quraan yi loolu nag xam naa bëgg naa nga indi ñu ci lu gën a leer naka noonu itam ci euh, aaya bi nekk ci alquranul karim ma nansax min ayatin aw nunsiha nati bi xayrin minha aw misliha nga wax ni fii nii li muy tekki mooy li nga xam ne si mooy téere yi ñu jiitu woon lu mel ni ki tawraat loolu lay waxal mooy alquran ji day ñëw di nasx tawraat nga ni pour ñu comprendre aaya bi dañuy dellu sa aaya yi ko jiitu woon waa fii nii laaj bi nga la fii laaj sëriñ Baba Jaw mooy tawraat xanaa buñ ko waxee loolu moom nas la boo xam ne si dafa jóge ci borom bi tabaraka wa taala kon léegi naka la ñuy mën a nangoo ne alquranul bu jóge ci borom bi di ñëw di nas beneen nas boo xam ne fii dafay jóge dafa jóge ci borom bi muy tawraat te mënuñ ko nangu mu am ci biir alquranul karim loolu bëgg naa nga indi ñu ci euh, leeral incha allah waa jërëjëf euh, li nga laaj leer na li kullin minkum jaalna li kullin jaalna minkum shiratan wa minhaja loolu la sunu borom wax yonent yi ku nekk ñoo bokk li ñuy woote aqida bi waaye ku nekk da nga fa am nag sa dustur boo koy doxale waaw loolu moo tax euh, dimbale ci waa ji ci beneen aaya ci alquran bala ma koo tegtaloo te loolu du ko arrangé sunu borom subhanahu wa taala dafa wax ne huwa alladi nazala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa uxaru mutashabihat xam naa ne bëgg a neexee mu jël mutashabihat yooyu jox def ko mansuxaat yow lay demee noonu waaye ci loolu rek moo lay wan ne comme yow si sa question bi lay tontu nag moo tax mu indi li sunu borom subhanahu wa taala diine yu njëkk yi ak euh, euh, bokk euh, dustuur ba daan doxal diine yu njëkk ya ak dustuur bi doxal si diina sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokkuñu alquran kitaabu hidaaya la kitaabu hidaaya la laa yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min xalfi moo tax nas ko munu ci am te beneen yonentu ñëwut gannaaw sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba war a nasx alquran kon alquran mooy téere bi nga xam ne bépp téere bu fi mës a ñëw nekk téere yonent sallallahu alayhi wasallam nekkul téere mu'jiza téere du suur la woon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi rek moo fi yore téere hidaaya wa mu'jiza kon boobu mooy bi nga xam ne moom day nasx waaye kenn du ko nasax waaw ci loolu nag euh, boo gisee euh, fii ayatun muhkamaat buñ ko waxee fii ayatun muhkamaat hunna ummul kitaab xam nga umm buñ ko waxee mooy alqasd bu naan euh, amal waladu ila euh, aw amal waladu ila ummi mooy qasada alayha ngir mu nàmpal ko gi demee noonu léegi euh, na umul kitab mooy yi nga xam ne moom la yàlla wàcce ci yonente bi sallallahu alayhi yi nga xam ne dafa bees te ko benn téere yooyu mooy yi nga xam ne moom la yàlla soxla moom la yàlla jublu moom mooy umul kitab mooy mooy mooy ndey ji mooy cosaan bi wa uxara nag yeneen yi nga xam ne nag bokkul ak yooyu nag mutashaabihaatun dañ koy nuroog yeneen téere yu nekk yi jiitu woon suhufi Ibrahima wa Muusa Tawraat Zabuur kutubu anbiya yi yi jiitu woon yooyu mooy mutashaabihaatun yaani tashaabaha alquran ma hadihi alkutub fi baadi al ayat walakin nag ummul kitaab nag mooy yi nga xam ne moom alquran dong moo kon yi nga xam la tashaabaha ak yële yooyu mooy mutashabihaat yi umul kitaab bi nag moom la yàlla indi léegi nag umul kitaab bi nga xam ne alquran rek moo ko moom nag yooyu nag day nasaxal yenn yi nga xam ne addiyaan yu téere yu njëkk yi amoon nañ ko loolu moo waral euh, yàlla di nasaxal yeneen yeneen téere ndax ñële seen téere nekkutoon mujiza téere boo xam ne du suur rek la woon Muhammad sallallahu alayhi moo yore téere mujiza téere hidaaya kon bii moom day nasaxal yële ndax jamono yooyu ak jamono yi bokkul te ñun dañuy euh, kii téere alquran day wax ak lu kulli wa kulli makaan di wax ak tim asaqalayni jinnan wa insan di wax ak aalam bi yëpp te téere yu njëkk yi waxaluñ woon ak aalam bi yépp dañ leen daan yónni ci xabila wala ci euh, dëkk wala ci mantiqa waaye yónniwuñ leen woon ci aalam bi bii rek mooy bi nga xam ne moom la ñu yónni ci alam bi yëpp bashiran wa naziran kon mooy bi nga xam ne kon day dind ci lale te yële waaye moom kenn du dind ci moom. sëñ Abdou may wax yëpp dama koy fekk ci téere eh, Abdul ak xaw ma nan Xijaazi dafa mel dama jël du koppi ah, kon yow moom jàmbaar nga yow mi xam ne jëlee woo fenn. ah yow kay comme dama koy jëlee fenn kay yow yow jàmbaar nga rek yow moom jëlee woo fenn man daal man jéem ma toppatoo foo jëlee sax waaw yow toppatoo ndax jëlee naa fenn wala jëlewu ma fenn wala da bëgg ma wax noonu rek ba ñu jëlee fenn kon ma tooñ di baal ma wax rek li nit ñi wax sama ma waxee sama waxi bopp gars yi dañ may dañuy dal sama kaw baal ma wax li borom xam-xam yi wax rek bala ñuy wax ne damay waxee sama xel baal ma jëlee ci ñoom rek waaye ñaar ñi nga wax na wax dëgg yàlla yàlla xam na ne nag ñooñu moom jotaguma leen a jël moom waaye ñi ma jël danaa la danaa la ko wax bu sooba yàlla bul yàkkam waaw yow de yaakaar naa indi nga say dalil ci li tegtal na nasxa am na wax nañ ci man nag samay dalil yi tegtal na nasxa amul ba léegi indeeguma ko de ci say yos rek laa nekkoon xam naa ne après suñ ma ko laajee rek ma jéem lu ko indi ndax lépp alquran la te lim néew lum néew ëpp na juróomi aaya wala juróom benn aaya ci biir alxuraan <laughs> maanaam laa sëñ yaa may rek dee yow fi ne sëñ bi maanaam fii audio bii nga baal mooy sëñ bi dafa fii dafa jafe jaxas bi jaxas bi méttee métti yoo xam ne sëñ lu mat a taxaw la bi ci njëkk mooy aaya bii nga xam ne moom maanaam téere yëpp ni nga ko firee ak ni ko firee moom man man man damaa xamul kii fan lay jëlee maanaam li muy wax lépp maanaam man dama wut dama wut fekk ci maanaam téere tafsir yi ngay wër yëpp ñu xam ko moom li muy wax nii kenn maam moo tax ma di ko laaj fan la koy jëlee xam na ko maam faw mu andi téere yi waaw ndax tafsir bu xoolal ay bi mu andi nii ak ci soot al imran ni ko ni ko ni ay bi nga day leeral mu wax kama mutashabi fil quran huwa alladi anzala alayka alkitaba yow muhammad alayhi salatu wasalam yow la yàlla wàccee ci yow alquran minhu am na ci nekk na ci biir ci alquran juju ayatul muhkamat hunna umul kitab am na ci ay yoo xam yu leer la muhkamat mooy bayyinaat waadihaatu dilala aaya yu leer yoo xam ne seen tegtal dafa leer laltibaas fiha laa gumud loolu mooy ayatul xalaal wal xaraam hunna aslul kitaabi hunna umul kitaabi yaani aslul kitaabi wa asaasuhu mooy aaya yi nga xam ne li dagaan da cay nekk li xaraam da cay nekk foofu du am du ihtimal wajhayni ndax su bo ihtimal wajhayni mën nañu gëdd gëdd ku koy def mu ne man kat dama xamutoon ni dama jàppoon ne lee la kon li ñëw li dagan lépp ci ayatul muhkamaat la ñëw li aram lépp ci ayatul muhkamaat lay ñëw ndax du ihtimal ay ay ay aw ju ba nga xam ne kuñ gëdd ëllëg mu ne damaa jàppoon lii la léegi nag mu amaat na wa oxor yoo xam ne nii moom dafa am yeneen yoo xam ne nii fii istibaa ci la même ci biir téere bi dafa dafa la lan lay wundu ci ci maana ala kasiri min an naas su boobaa nag képp ku jàpp mutashabih boobu yóbbu ko ca waadix ba al muhkam faqad ihtada képp koo sabana réer na moo tax yàlla ne ñi nga xam ne seen xol ak jàng da caa nekk dañuy topp yi nga xam ne maatu sabaha minu maatu sa maatu sabaha minu koy jeexal lay wax mooy loo xam ne dafa mutasabih la ci di ko jéem a fiire seen bànneexu bakkan te nag sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ ba sëñ baaba loolu la lay moytuloo fa amma alladina fi qulubihim zayq fa yattabi'una ma tashabaha minhu yéeg amma man kaana fi qalbihi maylun an il huda ila dalal fa yattabi'u mutashabih minhu wa yufassiruhu ala hasabi hawahu ibtigaa al fitna wa ibtigaa tawili ngir sàkku fitnal nit ñi ak jëm ko ma ci ci ci seen diine ak bëgg leen a defe defe defeloo yeneen ah loolu de loolu nasaraan ñoo ko daan def ak ñi nga xam dañoo réer kon li ma bëgg a wax fa di ko wax mooy aay euh, bi ni mu ko firee bëgg na moom lu mu wax rek ma am ci ba lii mu andi nii fan la nekk boo ko bu nekk ci bu nekk ci téereb laa xal laa laa nas xatil quraan bi ma bett te loolu man loolu moom xam nga da ci débat bi moom day nekk ci débat boo xam ne ni ni kuy saxal wala waaye kuy kuy inkar lii doo ko fekk ci téere yi borom tafsir yi nga xam ne ta seen seen moo sookal doo ci fekk mu ko ci moo tax ma di ko laaj na ko indi rek moom lay xaar la ca desaat la ca desaat mooy man ma loo xel mbooloo mi ci ne jëlewun ci benn ci mu fassiroon yi moo xam ñu jiitu moo xam ñu mujj ci wàllu tafsiru aaya bii ku ci weddi wokko on nasa ci qur'an lam yusar maa ko wax bi tahaddi min an ahadil an ahadin min al mufassirin hasaba ma balagani min al ilm hmm? sawaun al mutaqaddimina minhum aw mutaaxirin bi sadri tafsiri ayati nasq fi surati al baqara al qawlu bi inkari wuqui nasq ku may kenn ku may kenn kenn kooku mooy abu muslim al asfahani bi moo waxoon dinaa ci ñëwaat kooku sax ñi jamonoonteeg moom dañoo taxaw raddu ko raddu gu métti sax ànd ak li ñuy reconnaître na ku am xam-xam la dañ koo radd bokk na ci ñi ko radd Abu Bakr al Jassaas bokk ci ñi gën a siiw ci ñi jamonoonteeg moom da ko intiqaat intiqaat laadia ba ne sax hada xurujun anil ijma di firee di wet di weddi nas ko ci alxuraan ba ba ci ci bii di ko firee xurujun anil ijma moom nam nam andi terme ba sax dax ne zaama baadul mutaaxirina min ahli lfiqi alla nafqa fi shariati nabiyina muhammadin wa anna jamia ma dukira fiha min nasq fa innama almuraadu bihi nasqu sharai al anbiya al mutaqaddimin lii moom la Babacar wax léegi moom la wax léegi nee na mooy li liñ jublu foofu daal du ci sharia bi waaye nasqu sharai al mutaqaddimin la mu ne waqad kaana hada rajul abu muslim abu muslim it jublu daa xasdi min al balaax am na balaax bu wér wa wa kasir min al ilmi bi luga am na lu bari ci langue ci ci dégg la langue arab waaye nag wàllu fiq gi moom gayru maxsuus min min ilmi l fiqi wa usuli noonu la toppee moom jasaas di ko di ko dajji ba egsi na partakaba hada rajul yaani aba muslim fi fi l ayati l mansuxa wa nasiqa wa fi ahkamiha irtikab na ci umuran xaraja biha an aqawili l umma ma taassufi l maani wa stikrahi wa stikrahiha maanaam moom daanaka li mu leeral daf see génn ci mboolem li xeel li xeel wax ci ay wax ànd ci nag ak taassuf bu métti ak tañax bu métti métti ci la jël waxtu mat sëkk nag pour pour radd maanaam abu muslim moomu kon waxam ji muy wax dëgg yàlla du dalee bu ñuy sukkandiku wax dëgg yàlla ku ci sukkandiku ku ne xanaa ci ban topp bànneexu bakkan waaye man maa ngi koy xaar rek mu andil ma daal mu andil ma daal wax ji fan la nekk. yow lii moo la nar a tax nga dee tax nga indee nasx ci alquran rek bëgg yëpp ay affaire yu taarud ak affaire yu defee am loolu waaw yow ne nga xon na umul kitaab mooy aslul kitaab. bu kitaab bi amee aslu kay am na ay furo furo yooyu mutashaabihaat yi nga xam tashaabaha bi maa ma gayrihi min al kutubi saabiqa ah sëriñ bi te gis nga yéen ni ngeen jàppee nasx mooy seen problème gis nga même boroom xam-xam yi njëkk yi bëree bëri ni ngeen doon ni ngeen ni nga jàppee ko boo xoolee ci ñoom ni ñuy jëfandikoo nasx bokkut ak ni nga jàppee nasx ñoom ñoom boo xoolee ci seen i biir wax da nga xam ne ñoom nasx lu ci ëpp ci ñoom. nasku daanaka euh, taxsiis la ci ñoom taxsiis bil istisna wala taxsiis bi sifa wala taxsiis bi badalil baad wala taxsiis bi bil gaaya comme xatta wala yu noonu waaw ak taxsiis bi anwaayiha al xamsa yooyu noonu nañ koy téye nasq boo xam ne bi taarud di ci am mais yow danga bëgg a ñëw rek jël affaire bi rek bëgg a def ne ixtilaaf dafa am dig bay na xukmu bi ba xukmu bi kii dafay jële bi complètement changé ko déet kon kay la wajadu fi ixtilaafan kasiran te alquran ixtilaaf amu ci ah taarud amu ci am na bu mu fi déggoon bi nga wax naan bi tadarruj ah pourtant nas ko bi tadarruj loolu mën naa am njëkkee lii ba si yàgg nga indi leneen ba si yàgg nga indi leneen mais nekkul ne benn dafay ilgaas sa moroom comme ayatul ayatul xamr ah benn ilgaawu ci sa moroom benn rafawu sa morom mais bi tadarruj la ñëwee te loolu dégg biir wax kon yow ni nga bëggee dégg ni nga bëggee expliquer ak ni nga déggee nasxa daf mel dégg goo nasxa ni ko war a ni nga ko war a déggee complètement suuf fii da nga koy jaxasewaat du ma bàyyi mu jàll euh, maa tasaabaha boobu noonu ci for foro loolu dañ ko tax dit nasx nee naa la ñëwaguma ci la ca li ma ci wax tuuti laa ci wax bari na lool rëyu aray yi dama cee teg dama koy fixé ne mais rayu benn borom xam-xam buy anal ci moasiron yi la bokk ma docteur Mouhamed Bakk Ismail li mu ci wax li mu ci détail ci wàllu nasq ak nasq ni waxoon naa ci njëlbeen ne dañoo tawsiya daairatu nasq ñu mujj ñëw tadyiq la mu andi jafe-jafe yi loolu man dina ci ñëw yow kay yaa maa tàmbali di leeral nga dévier débat bi tàmbalee tahaddi di dugal ci say mbir ci bokk yooyu yooyu laay kii loolu dama koy dama koy dindi bala bala ma kii mooy maa tashabaha ju ngay wax noonu ci fron yi fron yu ngay wax noonu ñun liñ bëgg mooy fan la nekk fan la nekk lañ bëgg xam Ah, waa ji nga ne jëlewu ma fenn ci mu fassiroon yi laa qadiman wala xadisan ku firee noonu <laughs> te da nga ciy taxaddi te ngay wax ci sa xam yem rek <laughs> ci borom xam-xam laa jëlee de borom xam-xam bu bu mashhur sax bu ñu xam moo xam ne kay allafa min al kutub maa la yuadd wala yuxsa nekk ku ñu xam fi l aalami al islami mutaraf mashhur fi l aalami al islami ni ma firee nii mu firee nga naan jëlew ma ci boroom xam-xam waaye wax ji waxal fi nga yem rek wala li nga li nga gis xamoon naa ne da nga indi lii tëj xamoon naa ne danga nga indi ne ko mooy te nas nasq nasq ak taxsiis nag borom xam-xam yi séparé leen yóbbu leen ci ñaar fukki mbir yoo xam moo séparé seen diggante su ma wax su ma taal bi may dana andi ñaar fukki mbir bokkuñu même nasq ak badaay bokkuñu séparé leen seen diggante yooyu yëpp yooyu ay séparé su daa seen xam ne yu a xam la man daal sëñ bi moom day mel ne yow yi ma la laaj yëpp tontuwoo ji dara. wallaay xam naa ne nasxoog taxsiis ak badaa yëpp bokkuñ mais yow da nga koo bëgg a jàppee noonu te du noonu bokkuñ ba pare nga bëgg yow de yow sa biir wax da nga koo bëgg a da ngaa bëgg a ak ak taxsiis te bokkuñu yow ni nga jàppee da ngay jàppee nasx na mooy da nga raf xukumu rafaan boo xam ne bii nihaayiyan la indi beneen bees bu ko mujj. ba pare nag di waxee waxu koo xam ne ki comme da def def euh, euh, taxsiis ci benn ci anwaaw taxsiis yi man maa la waxee loolu ay ñoom ñaar xaaju ñoo bokk nasq amul ci alquran boo ko ci buggee dugal rek yaa ngi yaa ngi yaa ngi dugg ci biir taxsiis te ñoom bokkuñu. waa kay jërëjëf euh, sunu sëriñ sëriñ Baba barakallahu fiikum ci leeral yi mu mel ne sunu sëriñ sëriñ Abdul Ahad moom. dafay insister ci tafsir bi nga xam ne si yow yaa ngi koy tafsir li nga xam ne si moom mooy aaya baatu aaya yi nga xam ne si moom moo ñëw ci aayaat quraan yii nii yow ci yan mufassiruun nga sukkandiku yow ci yan mufassiruun nga sukkandiku ci lii ngay wax moom loolu daf see bëgg a am ak leeral xam naa loolu nga indiñ ci leeral incha allah waa kay kilifa yi barakallahu fikum samahat al ustaz Babacar Diaw wa kadalika al uh, Abdul Ahad xam naa pour mën a poser waat ma poser benn question waaye question bi yéen ñaar ñëpp laa koy jëmale mooy nasx ana lan mooy suruuti nasx waaw jërëjëf sëñ Mouhamad ñu ngi leen nuyu bu baax nasq euh, borom xam-xam yi tuddoon nañ ko ay surut bi ci njëkk mooy euh, alxukmul mansuux dafay nekk shar'iyan kon du génn cadre sharia kooku mooy benn ñaareel ba mooy an yakuna alxukmu almansuuxu shar'iyan kooku mooy benn ñaare ba mooy an yakuna dalilu ala irtifai alxukmi xitaaban sharciyan mutaraxiyan an ilxitaabi almansuux alxukmu boobu loolu mooy lan mooy dalil bi nga xam ne ni moom la ñu sukkandiku ci ne atte bi yëkkatiku na dafay nekk xitaaban sharciyan boo xam ne nii moo ko mujj euh, moo mujj xitaab bi nga xam ne moom lañ moom lañ folli moom lañ folli atteem ñettee ba mooy euh, an laa yakuna alxitaabu almarfuu xukmuhu muqayadan bi waqtin muayyan maanaam xitaab boobu nga xam moom la ñuy yëkkati ab atteem bu mu doon loo xam dañ ko tënk ci waxtu wax wuñ xam la loolu su su amee rek day daal di kon fal xukmu yantahi bi intihaay waqtihi kooku kenn du ko tuddee nasax moo tax euh, loo xam ne mboole ci boo xam ne dañoo wax ne looloo ci xitaab boo xam ne dafay xam le ne am na fu mu yem euh, comme suñu borom wax ne fa foo wasfoo xatta yaati amrullah kooku muhkam la gayru mansuux ndax mu ajjal la bi ajalin moo tax kooku wal mu ajjal bi ajal laa nasqa fii loolu daal wax nañ ko ni eh, charte la ci pour l'instant waaye nag sëñ bi laaj yi ma ko laaj tontu wu ci de te loolu moo doon moo moo doon débat bi rek tayit yi mu leeral yépp ci nasq bay bay dàq ak kiyam yooyu ulama yi ñuy sukkandiku ci jumhur ulama dañ ko dàq léegi nag moom li mu indi la bëggoon mu mu mu indi fan la nekk ngir ñu mën ko fa fekk ngir bu fekkee day laaj ñu bàyyi li nekkoon nekk ci la ñu xam ko waaye na fa ñu xam barab ba. waaw dafa mel ni oustaz eh, kii la laajoon suratu nasx waaw euh, waaw man de li ma ci jàppoon euh, mooy fexe daal ba euh, ñaari dalil yi ñoom ñaar duñu daje cest à nas naasix bi ak man man mansuux bi duñ fi nekkandoo waaw bu naasix bi ñëwee rek mansuux bi dafiy jóge immédiatement boobu bokk na ci suula di bokk na ci soroti aussi fexe ba xam euh, mujj gi nga xam ne moom la naasix bu mujj ci li nga xam ne mooy man mansuux fexe bu ne ñaari aaya yi benn bu moo nasaxal beneen bi ñu fexe ba mu wóor nañu ne bii nii nasaxal beneen bi boobu moo mujjee ñëw waaye su fekkee ne benn moo nasaxal moom moo bi ko bi mu nasaxal moo ko mujjee ñëw loolu moom euh, du doon lu baax beneen bitim bokk na ci mooy ci li ma jàpp su ma fàttewul ci surut euh, nasxi mooy euh, fàttaliku mooy naasix bi daal nekk xam ne dafay sax waa bi leer nañ yaakaar naa daal su ma jumul yooyu jàppoon naa ko si waaw jërëjëf waa kay jazakumullahu anna xayral jaza sëriñ Abdul Ahad leeral yi am na solo lool macha allah indil nga ñu surutu nafs mu leer nañ wa kadalika itam sëriñ Baba Diaw xam naa beneen laaj bi nga xam ne si moom laa ciy tofal jëmale ko jëmale la ko sëriñ Abdul Ahad mooy nga indil ñu ñaari aaya ci alquranul karim yoo xam ne fii dañ ko euh, mansuuxal ak aaya yi nga xam ne fii ñoom ñoo ko mansuuxal waaw jërëjëf sëñ Mouhamed ñu ngi lay bu baax euh, di la sant baax di la gërëm xam nga nag nask moom sax mi ci biir surotul nask far li mu ci leeral leeral laa nañ lu wene ne ko nask dafa sax ndax moom moo moo indil boppam ay firnde yu tegtale nask lu sax la bay indi ay naasix mansuux naa nit nag lu saxut xanaa doo doo doo ñëw ba di ko indi ay suróot yu mel noonu kon ginnaaw mi ngi koy set rek mi ngi koy taxalal ay suróot rek dale buy tegte ne loolu lu sax la maanaam wax waaye moom bu bu bu bu bu istijwaab bi war mu istifham damiram dan daal di xam ne eh, lu sax la waaw sëñ Mouhamed euh, xam nga borom xam-xam yi ci wàllu nasq bala may wax ñaari aaya yi mel noonu dama lay wax ne borom xam ci wàllu nasq dañ ko sedd fi ñaari pàcc am na am na li ñu tuddee aqsaamu nasq ak anwaa'u nasq bu dee aqsaamu nasq ñeent lañ ko def nasqul qur'aani bil qur'aan nasqul qur'aani bi sunna yi donte am nay wax dégg nga nasqul sunnati bil qur'aan ak nasqul sunnati bi sunna ñeent yi moo am dégg nga nga koy ko ay am sila yoo xam ne ngi biir léegi nag euh, mu am it nasqu anwaa'u nasq ci ci alquran boobu ñetti xeet lañ ko def mooy nasqu tilawati wal xukmi maan boobu mooy benn bi ñaareel ba mooy lan mooy nasqul xukmi wa baqa'i tilawa loolu <laughs> dégg nga euh, ñetteel ba mooy bi andi coow li nga xam moo tax ñu ma nasqu tilawat ma baqaay xokkumu ñeent yi ñoo am léegi nag bu ñu doon andi ci ak aqsamu nasq yi comme ni ma ko ni ñu ko laajee noonu bari nay aaya yoo xam ne dañ ko indi bokk na ca euh, bu ñu indiwoon ci nas nasqu sunnati bil quran ci misaal ndax mën nañu indi wala njëkk indi sax ci euh, nasqul qurani bil quran mooy aaya yi nga xam ne doon doonte moom mën na ànd ci ñi koy ñi koy koy dàq waaye euh, am na xismu boo xam ne nii muttafaq ala jawaasi wa wuquuhi ci ñi nga xam na wax nañu ne nasq lu am la toujours da waxoon naa ci njëlbeen na nag moom euh, xiwaar la shaik boo xam ne nii ñii dañuy saxal ñi di dàq waaye benn aaya bi ci njëkk mooy ci nasqul quraan bil quraan mooy ayatul i'tidaadi bil xawli masalan maanaam iddawoo benn at nga xam ne benn at lañ lañ iddoo dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko nasqoo ci arbaatu ashhurin wa asran fi ne nii tamit ku borom këram faatu ñeenti weer fukki fan la yëndu te bu njëkk nag am at la woon léegi loolu ci euh, ci ci ci aay yi nga xam ne dafay saxal nas la bu fekkee dañu bëgg andi aay bi da ngaa déggul de man saxal naa nasxa am na mais amul ci diggante alquran ak quran noo fexe ba jaxase sama wax alquran du nasaxal alquran waaye alquran mën naa nasaxal leneen nasxa am na kay loolu ñëpp xam nañ ne nasxa am na mais nasxa diggante ban ak ban ah? waaw loolu lañuy wax waaye nasxa kay saxal naa na am na. waaye an nafqu fi alquran laa weddi déggal moo doon bi bu baax bala ngaa tontu tontu eh, soal da nga koy mu ba pare soog koy tontu suñu abdulahat waaw su ma paree naa ko xool yow ba pare nga dem xooli ko dégg nga lu nii rek laaj ma waaw li ma la wax daal nii ba fa ngay ba may mujjee ji donc man nga am yeneen yokk ci de waaye doo ko génne ci surut yi de bu soobee yàlla euh, taazurul taazurul jamo bayna dalilayni ñaari dalil ñoom ñaar ñu àndandoo nekk fi ñoom ñaar kooku ci surut yi la ñoom ñaar ñu bañ fee nekkandoo ñoom ñaar ci suruti na nasq la bokk bokk na ci suruti nasq aussi nga xam euh, bi nga xam ne moom mujj nga xam ne moo mujj di nasaxal bi nga xam ne moo fi jiitu woon nga xam ban la bu wóor bokk na ci surtu nasx aussi bi nga xam ne mooy nasaxal nekk bu wóor bu sax boo xam ne bi dafay gën bi fi nekkoon wala mu mel ni moom loolu ci surtu nasx la bokk boo amee loo ci yokk nga ko waaye mënoo ko fi jële waaw ndax tey boroom xam-xam laa ko jëlee bu ko nga xam ne moo nasx aaya boobee walladi ñu toog na bi anfusihinna arbaata ashhurin wa ashra may ñi nga xam ne seen borom këram war na jigéen ñi nga xam ne seen borom kër daa faatu ñu sax ci iddaw ñeenti weer ak fukki fan yoo xam ne ayaamu xidaat lañ koy tuddee seen borom kër ay boobu nag boo demee ci ñi nga xam ne ñoom la sëñ Baaba Jaw àndal ñoom dañ koy dañ dañ naan lu nas om fi <coughs> waaye lii bokk na ci misaal mi ñuy joxe ci ci ci ñiy taxal ne nas xam na mu benn la ci ci ci ay bu dee beneen mënees na andiwaat beneen beneen beneen euh, beneen beneen nasku mooy nasku sunnati bil quran euh, comme li mel ne li nga na sax na ci euh, yonent bi saasam ba muy laata ba muy laata jublu ba gi mu ngi doon jublu baytul maqdis loolu kaana saabira bi sunna ñëwati alquran luy tegtale ne tawajjuh boobu ila ila baytul maqdis waaw waaye nag alquran moo ñëw nasku ko fa walli wajhaka shatral masjidil haram kon ku nasqul sunnati la bil bil quraan yi maanaam suñu borom moo la digal léegi ngay nga jublu masjidu haram waaw comme ñaari ay ma doon laaj yu benn la ci donte na ma ko laajee moo tax ma tontu ko moom na nag ñoo xam ne ñi ñi nga dañuy yow den di di di di dajjiloo nag am na leen lu ñu wax xaaral ma déglu suñu baab mi lu waa kilifa yi xam naa pour njëkkante ak waxtu wi euh, moom moo tax mais li ngeen rotal ci euh, surutu nasx moom leer na turuqu maarifati nasx ñett la ci boroom xam-xam yi wax benn bi mooy an yakuna fi ahadi nassayni maa yadullu ala taayin al minhuma na nekk ci benn ci ñaari nass loo xam ne si dafay euh, wane ni benn bi moo gën a maanaam moo mujj beneen bi ñaareel ba mooy أن يعقد إجماع من الأمة في أي عصر من عصورها على تعيين المتقدم من النصين والمتأخر منهما na ijmaa am ci umma bi ñuy wane ni maanaa aaya bi moom moo mujj aaya bee ne ñetteel bi mooy an yarida min tariqin saxiixatin an ahadin min alsaxaabati maa yufiidu tayiina ahadin ahadi nasayni almutacaaridayn lilsabqi ala al axari ay taraaxi anhu maanaam mu rot ci euh, kenn ci saxaaba yi te mu nekk loo xam ne si lu wér la muy wane ni euh, benn bi daal moom moo mujj beneen bi loolu rek moom mooy euh, turuqu maarifatu nafx yeneen yi ngeen ci rotal loolu wér na pour njëkkante ak temps bi moo tax may poser benn question boobu noonu mooy ñaari aaya yi te ma laaj ko sëriñ Abdou Lahad sëriñ Abdou Lahad nga indil ma ko ñaari aaya yoo xam ne si euh, dañ koo nasx te yeneen ñaari aaya ñoom ñoo ko nasx ci alquranul karim na bu baax li nga wax léegi yow nag maanaam moo tax ma laaj la ko ne li ne la yow yaa saxal ne kay nasx am na naasix na naasix mansuux bi yaa ko saxal ñun nag naasix mansuux dañ koo xamul ci li may ci alquran luñ ko xool duñ mën a ñu koy tudd fenn fu di ci maanaam naa si xam mën suxu daal sëñ bi ñun buñ koy ci ulumul Qur'an lañ koy boole waaw ci ulumul Qur'an lañ koy boole te it riwayat yi nga xam ne moo di ko dëggal dafa bari lool te buñ ci ci ñëw insha allahu taala bu yàlla mayee ñu jot nii ci biir waxtaan yi mën nañ ci ñëw waaye su fekkee da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay dàq dara da dëgër ci doo doo wax luy jëm ci luy saxal lool waaye di dàq dara wala bu saxal lu ci jëm day doy waar te naa sax man sox boobu Euh, fuqahaw yeeg maanaam euh, solo suñ ko jox borom xam-xam yi tafsir solo suñ ko jox borom xam fiq yi solo suñ ko jox mu fasir solo suñ ko jox yooyu yëpp lañ ci jub mooy jaxasoo bañ am ci àtte yi rek ndax am na ay asar bari yoo xam ne dafa dafa dafa rot ci soññi ci xam ko wax nañu ne imaamu ali euh, romb na benn attekat ne ko ataarifu naasixa wal mansuux loolu la ko wax ne xam nga naasix mu ne mu ne ko laa mu ne ko faqaal mu ne ko halakta wa ahlakta wax ji ma lay wax boo demee ci mabaaxis fi ulumil quran da nga ko ci fekk di xattaan dégg nga ci page deux cent vingt cinq ibnu abbas it wax nañu ne euh, ci suñ borom di wax ne wa man yootal xikmata faqad utiya xayran kasira moom ba koy ba mu koy leeral da mooy naasiquhu wa mansuquhu wa muhkamuhu wa ba mu jeex kon kenn mënu fii dajji naasiq mansuq si sëñ baba sëñ baba son lay am rek waa sëriñ baba mu mel ni sëriñ abdul ahad indi na ñaari aaya ci liñ ko laaj mooy aaya bi nga xam ne si dafa ñëw ñu nasx ko ak aaya ba ko nasx mu tegtaloo ci ñaari aaya ci alquranul karim ci suratul baqara benn aaya bi di wax ci ñaar yëpp di wax ci wàllu idda benn bi di wax ne euh, jigéen bu fekkente ne si borom këram dafa génn àdduna na idda woo at mataan ilal xawli su ma juumul aaya ba noonu lay wax mu indi beneen aaya di wax ne aaya boobu moom moo ko nasku di wax ne moom mooy di na walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arbaata ashhurin wa ashra léegi sëriñ baaba bu fekkente ni si yow da jàpp ne foofu nasx amu fa foofu yow loolu nan nga ñuy leerale ni foofu nasx amu fa ah, asalaamaaleykum foofu nasx nasx amu fa taarud sax amu fa foofu kay ñaari mbir la yoo xam ne bokkuñ sax lu ñuy wax والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول فإن خرجنا فلا جناح beneen bi والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن bokkuñ sax lu ñuy wax bii ci adda lay wax bee ci matin lay lay wax walladina yutawfawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mataan ila al xawl su fekkee ne seen jëkkër dafa faatu li wasiya la boo xam ne li laamul milki yàlla di azwaajihim mataan ilal xawli mën nañ fa nekk diirub at ci biir kër ga di fa euh, di fa noppalu di fa euh, xéewalu di fa bànneexu wala boog di fa nekkaale fa daal ba ba ñu am fu ñu mën a afan jéggalu ba waaw ñu am fu ñu mën a demaat wala feneen fu ñu mën a remplacer may nañ leen at lëmb ñu nekk fa waaye su fekkee ne at mi matul tim ñu bëgg a génne fa in xarit na fa laa junaaxa bu ñu bëggee génn tim ci weer wala ci ñaari weer wala ci juróomi weer amul problème la junaha ma fi muskila zan ba amu ci kon loolu wax ak idda dara bii wax ak idda nag mooy walladina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan na ñii moom du neex na yantazir na dañuy xaar xam nga ñoo waxu noonu waxtoon na dañuy xaar def ne wasiya rek la bu leen neexee toog bu leen neexee dem mais may na leen ñu toog fa at fa préparer seen bopp bii nag moom yatarabas na dañuy xaar dañuy muñandiku ah li anfusihinna arbaata ashhurin wa ashran muy muy idda bi kon lim si teg fa ida na ajaluhunna su seen su seen su seen ajal matee dañuy soog a droit def li ñuy def mais bu njëkk ba da nga faa gis ajal amu fa kon waxu tag bi wax idda wax na euh, euh, wax na nombre euh, jour idda bi wax na uti bu ajal ba matee fa ida balaga ajaluhunna fala junaha boobaa nag lu ñuy def soo ko mën a defi mais bële nag moom comme du idda amul problème bu leen neexee toog at bu leen neexee tim buñ toogee ba quatre mois cinq mois six mois ñu bëgg a dem dem kon bii mooy wax ci idda mais ba bee waxul ci idda kon fii amul lu ci am loo xam ne bi tanaaqut am na ci wala ixtilaaf am na fi ba nasxa di fi am boobu mooy bu njëkk bi beneen bi ci topp maa ngi dégg mu naan xaw ma euh, sunna moo moo moo moo nasx alquran xaasha lillah yow xanaa fekkee da ngaa saxal nasx sax ci aaya bi ngay wax naan maa nan sax min ayatin aw nunsiha natti bi xayrin minha aw misliha ngir yàlla su fekkee ne dem na ba am luy nasaxal alquran bu ko mënul gëntim na mel ni moom ah. mais sunna sunna xam ne suñuy lim al ahadis al mutawatira buñ ko doon wax ci saxiihul Buxaari yi sax bi nga xam ne mi li ñuy wax ne moo gën a wér ci téere yi bi ñuy wax ne moo gën a wér ci téere yi ci ñu ko wax su suñ doon lim al ahadis al mutawatira ya fa nekk lafzan buñ ca génnee tuuti la ay xadiisu man kazaba alayya euh, mutaamidan yooyu bëriwul yu ci ëpp ci ahadis ahadis ahad la ak yeneen ahadis yoo xam ne yi niñ ko mën a tuddee xasan daa fi demee noonu ahadis ahad yi demee noonu yooyu mën na ñëw di euh, nasq loo xam ne mutawaatir la qatiyatu subut la alquran kon kooku nekkut mislam di ah nekkut mislam parce que kii ahad la ay ahad lañ kii nekk mutawaatir Ah te dañ la naati bi bi xarina aw misliha mislam sax amoo ko nga ne day day na sax alquran loolu nga lool nga wax de te man sax gisuma addis boo fi indi waaye l'essentiel naa la indil aaya bi nga bëggoon indi ñaari aaya ñoo fi nekk fa aynama tuwallu fa samma wajhullahi moo fi nekk ak fa walli wajhaka qibla euh, satral masjidil haram xam naa yooyu nga bëggoon a wax juum na xadis xadis amu fi ñaari aaya yooyu la maa ngi ñëw leeralal la ko wala kii bi jeexagul ah ñaari aay yooyu sunu borom dafa wax ne walillahi almashriqu walmaghrib xoolal commencé ca gannaaw wa man azlamu mimman manaa masajid allahi an yuskara fiha ismuhu wa saa fi xarabiha ulaika ma kaana lahum an yadxuluha illa xaifina lahum fi dunya xizyun wa lahum fi laxirati azab azim walillahi almashriqu walmaghrib fa aynama tuwallu fa tamma wajhullah xoola fa mu commencé wa man azlam mi man manaa masajid allah an yuskara fi hasmuhu wa saa fi xarabiha kon am na ñoo xam ne dañuy dañ jéem a tere eh, jàkkay yàlla yi ñu fay jullee di fa tudd yàlla ba tax na ñu koy yàq ka màbb ka tojo gi demee noonu hmm? bu loolu amee yàlla na la foo manti dem ci suuf yàlla moo ko moom walillahi al mashriq wal maghrib foo manti dem fekkee am nga ñu nekk ñooñ sa gox jóge fa nga dem feneen foo mënti dem yàlla moom moom mashriq wala maghrib te foo mënti jublu ci côté yooyu rek foo mënti jublu ci côté gox boo mënti dem nag ah fa sama wajhullaay foofu yàllaa nga fa waaye booy julli nag na nga jublu penku shatral masjidil haram waaye booy dem di seeti fooy làqatu pour daw ñooñu wala pour moytu ñooñu fa aynama tuwallu fa sama wajhullah xamoo walla dana firi jublu dana firi wane gannaaw xoolal ashaabul kahfi law ittalaata alayhim la wallayta minhum firaara maa foofu wall la te dañoo dellu gan dañoo wane gannaaw donc kon foofu man nga faa déggee neneen bii ma lay indi rek ci la kii ndax bañ a gën a guddal kon fa aynama tuwallu fa samma wajhullah fu ngeen mënti dem yàllaa nga fa boobaa nag boo demee bay julli nag fa walli wajhaka shatra masjidil haram kon tanaaxut amul foofu ci ñoom ñaari ay yooyu te benn euh, nasku sa sa morom parce que bii dafa am ñu doon tere jàkke yi ak jumaa yeeg yooyu di leen toj yooyu di yàq ndax bañ ñu fa julle yàlla na dem leen feneen alam takun abdullahi waasian fa tuhajiru fiha bu ngeen demee nag walillahi almashriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa sama wajhullah fu ngeen mënti jublu rek yàllaa ko moom da fa fekk yàlla waaye bu ngeen demee ba war a julli nag fa walli wajhaka shatril masjidil lan moo fi différence foofu lan moo fi wuute ah lan moo fi nasxa moroomam ñoom ñaan ñëpp ñu dox bu dee boobu nag moom kese ci boppam ndax qad nara taqalluba wajhika fi samaa'i fa lanu wali fa lanu walliyannaka qiblatan tardaha ñu ne yonent bi da daan jublu baytul maqdis après yàlla nasaxal boobu euh, euh, walbati ko indi ko baytil xaraam euh, muy jullee foofu kon foofu na saxal na ko foofu tim xam naa ne waxoo woo ko noonu may maa la koy leeralaat foofu alquran wala ci sunna amul fenn fu yàlla masa waxee ci alquran wala yonent ma masa wax ci sunna ne yàlla moo ko digal mu jublu baytil maqdis di fa jullee amut kon yàlla digalu ko woon digalu ko digalu ko woon loolu fa koy nasaxal xool li yàlla wax ci alquran euh, qad nara taqalluba wajhika euh, fi samaai fa lanuwalliyannaka qiblatan tardaha euh, fa walli wajhaka shatra masjid haram haythu ma kuntum fa wala fàtte na aaya ba mu ko waxee woon waaw kay wa ma jaalna alqiblata allati kunta alayha wa ma jaalna alqiblata allati kunta alayha wala taabir bi yàlla wax wa ma jaalna defuñ alqiblata allati kunta alayha qibla bi nga xam ne nekkoon nga fa waxut wa ma jaalna alqiblata laka allati kunta laka wala yu waxul loolu de waxul qibla bi ma la digaloon nga koy jublu wala nanga déedéet qibla ba nga xam ne nekkoon nga fa ah léegi na yonent bi dafay dafa wax ci benn xadis na moom lépp loo xam na ni euh, da ciy jaamu yàlla euh, te yàlla joxu ko joxu ko ci ndigal boo xam ne bi euh, ndigal bu bu bu leer la ni da ci bëgg di nuroog ahlul kitaab ba baa mu ci am lu koy lu koy lu kon moom dafa ñëwoon yàlla jox ko julli waaye wax ko fu mu féete waaye xam ne ne Euh, anbiya yi ko jiitu woon baytul maqdis lañ daan jublu bu daan julli loolu moo tax mu daan jublu baytul maqdis di fa jullee mais nekkul ndigal bu ko yàlla joxoon laa fil quran wala fi sunna ba nga demee ne ba nga xam ne nag moom ma nga foofa ndax yonent yu njëkk yi la daan roy di ko def mais bëgg na ñëw fii nag yàlla na ko nag xibla ba nga xam ne nekkoon nga ca léegi dañ la ko changé te la ko xibla bi nga xam ne moom nga bëgg kon nag jublul baytullahi al waaye yàlla digalu ko woon loolu kon yàlla nas ko wut dara ndax digalu ko digalu ko woon ba kay nas ko su fekkee ne am na nas ko bu ciy am sax kon li diina yu njëkk yee nekkoon moom la nas ko kon indi ko ci diina lislaam te boobu moom ñun ñun loolu la woote. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa daa la ci leeral ba noppi laaj def laaj bi aaya bu njëkk bi aaya bi nga xam ne moom maanaam aaya bi aaya xam ne moom lañ moom moom lañ borom xam-xam yi wax ne moom la nas li ci suñu borom wax walladina yataw mu ne léegi benn taarif am bi ba ay nas ko di fi am yàlla ne walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja ñi nga xam ne dañoo faatu ci seeni góor maanaam minkum yaani min rijaalikum bàyyi fi ay soxna wa yadruuna azwaaja wa yatrukuuna zawjaatihim mu ne war na leen an yuusu yaani wasiya war na leen maanaam wasiya ndénkaane man an yuusu euh, qabla an yaxtadiru maanaam bala bala ñu nekk ca sukuraat ñu dénkaane ñu dénkaane dénkaane googu na mooy bi an maanaam ci mu mu seen soxna yooyu bànneexu seen ginnaaw xawlan kaamilan ñu leen di dépassé ci lañ fa bàyyi duñ génn ci seen dëkkuwaay yooyu loola ci njëlbeenu lislaam la doon am ci njëlbeenu lislaam loolu ci njëlbeenu lislaam la doon noonu la doon demee ku faatu maanaam soxnaam ye dañ fay teg at ma sëkk ñuy fab ci alal ja di leen di duñ génn ci kër yi di dénku ci njëlbeenu li wa kaana dalik ci awali dañ koo dañ koo nas ila arbaati ashhurin wa asra ah léegi nag diir boobu nga xam ne ni moom lañ ci bàyyi ñu war cee nekk ñoom fa in xaraj na fekkee ne seen coobare bopp lañ jënd raadiyatin kooku fala isma aleykum ya awliyaa almayiti fi tarkihinna an yafalna ma ma la ma la yumkinuhu shara fa in xarajna fala junaaha aleykum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf su fekkee ne diir boobu l'islam moo leen ko may même ñoom ñu génnal seen bopp ñu génnal seen bopp dem waaw loolu kay dara nekk ci ñuy def loo xam ne seen addu seen du ko bañ lu mel ne que di tasayyur wala ñu tatayut ndax dinañoo nekk ci idda yàlla ne wallahu azizun hakim yàlla suñu borom ghalibun fi mulki hakimun fi sunnahi loolu mooy kon ci njëlbéen gis aay boobu nga doon dox léegi nag ay bii lañ wax ne moo ko nas biñ biñ biñ mujj wax moom mooy mooy ay aay mooy ay bi wax ne wala di ñu tawafana minkum mooy war na ci jigéen ñi nga xam ne seen borom këram daa faatu waaye da doon aswaajan foofu nag mooy ñu bàyyi seen borom war na ci ñoom ñu bàyyi ñu bàyyi ay soxna ñoom soxla yi war na leen. yatarabas nag bi ar bi am fusihin arbaata ashhur wa ashra war na ci ñoom ñoom ñu sax ci idda lu tolloog ñeenti weer ak fukki fan yoo xam ne xidaat lay doon wala aswajihin léegi nag moom mii wax lii léegi ndax moom laaj bi ma ko fii laaj mooy la ndax fi ne ñii seen borom kër faatu léegi at lañ fi am wala bokk léegi ñeenti weer ak fukki fan la ñuy def loolu amal yéen dañ ko ay ay moo ko jàngale nit ki day day wax loo xam ne loolu yow ci taarixul islam ci njëlbeen islam la du am ay bi ma ko fal nga euh, nas ko fi lee moo doon am lii mu ñëw fal man ma jàppoon ne taxsiir ngay wax wala yu mel noonu wax jii nga wax fii wax la joo xam ne yaa ngi may yaa ngi may yaa ngi yaa ngi jaxase loo xam ne ni maa ngi ko tudd te egsi ci mooy nas nas ko su nas ko nas ko sunnati bil quran la andi waaye nas ko su naskul quran bi sunna loola ngay détaillé fii di ko leer te egsi gu ma ci même bu ma ci egsi lii nga wax nii ñi koy wedd moom lañ wax am na ñoo xam ne jum ci ci ci ci jumhur moom li ñu wax mooy nasxu boobu dañ koo daq boobu moom lu wér la mooy ala adami jawaas yi li anna alquran mutawatir yufidu yaqin kon ñoom dañ koo daq kon muy nasxul quran yi bi sunnatil mutawatir nag moom ndax nasxul quran yi bi sunna dafa am ñaari pàcc yuñ ko wax nasxul quran bi sunnatil ahadiya ak nasxul quran bi sunnatil mutawatira nasxu alquran bi sunnatil ahadiya moom jumhur dañoo daje ci daq ko ndax alquran mutawaatir la yufidul yaqin ahad yi masnun la te bu wér mukk raful maalumi bil masnun waaye nag qul quraan yi bi sunnatil mutawaatira malik daganal na ko abu xanifa daganal na ko ahmad daganal na ko ci ci riwaaya ndax dañoo wax ne ñoom yëpp mu wax yu lañ bi annal kulla wax yun ndax su yonente bi wa maa yantiqu anil hawa nag in huwa illa wax yun yuuxa wa anzalna ilayka dikra li tubayina linnas ma nuzila ilayhim te nas ko nag nawun min al bayan ñi ko tere ci loolu Shaafi'i yi moom moo ko man manoo ak ahlu zahir ak Ahmad ci benn riwaaya ndax loolu nga wax la wax da nga maanaam xam ne ay aw nuncia naati bi xayri minha bi xayri minha nag euh, kon kon mun ta gën munta gën alquran yëmuut ak moom ñu koy dàq ñoo wax waaye ñoo koy saxal dañoo wax yu la ndax as sunnatul mutawaatir wax yu la ñoom ñëpp wax yu lañ ñoo mooy ci wax yu nekk nekk nekk gi nekk wax yu loolu waxi kenn bu ko dàq wax ji nga wax fii wax la joo xam ne yaa ngi may yaa ngi may yaa ngi yaa ngi jaxase loo xam ne ni maa ngi ko tudd te egsi mu ci mooy nas su nasqu nasqu sunnati bil quran la andi waaye nasqu su nasqul quran bi sunna loola ngay détaillé fii di ko leer te egsi mu ci même bu ma ci egsee lii nga wax nii ñi koy wedd moom lañ wax am na ñoo xam ne ci ci ci ci jumhur moom li ñu wax mooy nasqu boobu dañ koo dàq boobu moom lu wér la mooy ala adami jawaas yi li anna al quran mutawatir yufidu yaqin kon ñoom dañ koo dàq kon muy nasqul quran yi bi sunnatil mutawatir nag moom ndax nasxul quran yi bi sunna dafa am ñaari pàcc yuñ ko wax nasxul quran bi sunnatil ahadiya ak nasxul quran bi sunnatil mutawatira nasxul al quran ahadiya moom jumhur dañoo daje ci dàq ko ndax al quran mutawatir la yufidul yaqin ahad yi masnun la te bu wér mukk raful maalumi bil masnun waaye nasxul quran bi sunnatil mutawatira malik daganal na ko abu xanifa daganal na ko ahmad daganal na ko riwaaya ndax dañoo wax ne ñoom yëpp mu wax yu lañ bi annal kulla wax yun ndax si yonent bi boo maa yantiqu anil hawa nag in huwa illa wax yun yuuxa wa anzalna ilayka dikra li tubayyina linnas ma nuzila ilayhim te nas ko nag nawun min al bayan ñi ko tere ci loolu Shaafi'i yi moom moo ko mënoo ak ahlu zahir ak ahmad ci benn riwaaya ndax loolu nga wax la wax danga maa nan xam min ayat aw nun shia naati bi xayri minha bi xayri minha nag Euh, kon kon sunna munta gën munta gën alquran yëmuwut ak moom loolu ñu koy dàq ñoo wax loolu waaye ñoo koy saxal dañoo jàppe ne wax yu la ndax sunnatul mutawaatir wax yu la ñoom ñëpp wax yu lañ ñoo yemoo ci wax yu bu nekk ñu nekk nekk gi nekk wax yu loolu waxi kenn bu ko dàq waaw sëriñ Abdoul Ahad euh, mu mel ni sax dégg naa nga commencé di tontu ci euh, loolu nga xam ne si sëriñ Baba mi ngi ko doon wax di wax ni ñaari aaya yi bokkuñ mawdu bu ñuy wax ba taarub di mën a am seen diggante mu ne aaya bu njëkk bi mi ngi wax ci wàllu mataa euh, maanaa bànneexu gi nga xam ne si soxna si gannaaw bu borom këram génne àdduna mën na ko toog ca kër ga di bànneexu ca alal ja mu ne beneen aaya bi ci li wax moom mooy wàllu idda te moom mooy arbaata ashhurin wa ashara mu ne kon ñaari aaya yi bokkuñ sax ci mawdu bu ñuy wax ba taarub di fa am ba naasix ak mansuux di fa am yoon euh, mu mel ne maa ngi dégg nga ci indi ay tontu waaye dafa am lu ñëw ci samam xel euh, mani naa la ko fa laaj euh, laaj bi moom mooy léegi soxna si bu fekkente ni si dañoo jàpp ci aaya bu mujj bi di wax ne yatarabbasna bi anfusihinna arbaata ashhurin wa ashara léegi moom su fekkente ni fii dafa génn dafa génn léegi moom est-ce que dina mën a sëy ci diggante boobu noonu ginnaaw bi arbaata ashhurin wa ashara jeexee walla kay moom man naa génn waaye faaw mu toog diiru at loolu moom mooy laaj bi maanaam laaj bi daal mooy idda ji kañ lay jeex sëñ bi yow da nga ittihaad rek borom xam-xam yi ittihaad te yow sa ittihaad yokk nga ci loo xam ne li ñeneen ñi may ñi ma ànd ak ñoom yokkuñ ci loolu parce que yow dóor nga fa baatu xibla ngeen mën a jublu rek xibla seen xibla la te yàlla waxul foofu xibla fa ay nama tuwallu fa samma wajhullah fa bëgg mu nekk xibla nag ba mu koy tuddu wax na fa xibla waaw qiblatan tardaha waaw kon euh, sa sa ijtihaad beneen ijtihaad bee ko gën a moo gën a dal xel de ndax bii sax tudd na xibla ñu xam ne fii mooy xibla waaye fa sàmma wajhullah fu ngeen man mënti nekk yàllaan fakke na allahu ko allahu kay maakum ay nama kuntum yàlla kay mi nga ànd ak ñun fuñ man ti nekk kon kay ñu la mën a lee fii wala ñu lay xatal fii kay mën ngaa dem feneen boo demee foofu ne yàllaan fa mais boo demee ba war a julli nag ah te xam xibla ba ba mu féete dangay ngay dem féete xibla ba nga jullee foofu jotewut ak lee dara boo xamul xibla ba ba mu féetee nag kooku nag ci la fuqaha yi nag di def seen ijtihaad nag kooku beneen mbir la bokkut ak li ñu wax dara waaye man ci nas ak naasix man suux laay wax waaye buñ demee ci affaire fiqh nag ñu boobaa ñu indi beneen débat bu mooy ne lii waa kay tabarakallahu euh, sëriñ Abdul Ahad waa mu mel ni euh, sëriñ Abdul Ahad moom dafay taxaw rek di wax ni moom lii muy wax du ay waxam da ko tuxal ci ay téere te mu mel ni itam ah, mufassirun itam li ñuy wax ci aaya bii nii walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mataan ila alxawli gayra ixraaj aaya la boo xam ne sii dañ koo nasxu te yow jàpp nga ni aaya bi nga xam ne sii sëriñ Abdul Ahad indi na ko aaya boobu noonu ak aaya bi bokkuñ sax mawduu bu ñuy wax ba taarud di ca am yoon ba nasx sax di ca génn léegi eh, laaj bi mooy yow yan boroomi xam-xam ci mufassiruni nga ñu mën a siteel ñoo xam ne sii ànd nañu ak yow ci lii nga xam ne sii wax nga ko ak sëriñ Baba Diaw waaw al akh euh, Muhammad xam naa ne rek kom euh, nee nañ waxtu bi jeex na xam naa foofu lay indee samay audio yu may talxiise talxiis yu mujj yi waxaale la tim fi ma ko jëlee almuhim li may njëkkee rek mooy dama lay wax ne la nafqa amul ci alquran te fi ma tegtaloo yàlla moo ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun yàlla moo ko wàcce moo koy garde amul lu mu ciy changé lu mu ciy changé waat benn yoon la wàcc yàlla ne inna anzalnaahu fii laylatil qadri yàlla jëlee ko ci asamaan ci lawxul mahfuz wàcce ko ci asamaan uh, àdduna mu nekk kaamilan amul dara lu ciy changé waat yàlla waxaat ne kitaabun uxkimat ayatuhu summa fussilat min ladun xakimin xabir kitaab boo xam ne te aaya yi ci nekk yépp muhkama la waaw yàlla waxaat ne wa innahu la kitaabun azizun la yatihi albatilu min bayni yaday wala min xalfi kooku ba tey day wane ne kii dara mënuñ ko fee changé euh, gis nga yéefar yi bi nga xamee ne alquran yàlla yonent bi da koy wax ne wa ida tutla alayhi ayatuna bayinatin qaala alladina laa yarjuna liqaana ati bi quranin gayri hada aw baddilhu ñi nga xam ne gëmul yàlla ñoo doon wax loolu yonent bi naka indil ñu beneen alquran bu dul bii wala nga changé ko xam nga loolu mooy nasx lu leen yonent bi wax qul maa yakunu lii an ubaddilahu min tilqaai nafsi lii man awma droit changé ko te mënuma ci changé dara lu tax in attabiu ila ma yuha ilayya inni axaafu in asaytu rabbi adab yawmin adim kon moom xam na ne lii amul luñ ciy changé amul luñ ciy nas bu amul luñ ciy E, e, weccee loolu mooy wane ne nasq amut li wane ne nasq amul aussi e, maa yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bi zallamin lil abid yàlla neen du changé dara ci kii bi wa tammat kalimatu rabbika laa mubaddila li kalimatihi yàlla waxam bi jeex na amul dara luñ ciy changé kon yii yëpp ak yeneen aaya yu des yoo xam ne waxuma ko ndax xattu waxtu bi day tegtale na nas ko amul ci alquran aaya yu koy indi moo ëpp fuuf aaya yi saxal nasx am na aaya yi saxal nasx na ci alquran ñetti aaya la te aaya yooyu mm, firiwul aayal alquran yi rek yeneen mojisa lay ay mojisa ak yooyu lay firi te aaya yii nii di firi ne nasx amut yu leer nañ na ndax alquran lay wax ak mu leer nañ euh, boobu benn la beneen bi ci des Euh, gis nga nasx boobu sama waa ji wax naan am na ci alquran euh, gis nga ñi muy wax naan dañoo dàkkoon na nasx dafa dafa am euh, boroom xam-xam yooyu wax ko ñoom du dañoo wuute seen biir ñi dañuy indi aaya yii ne aaya yii moom moom nañ nas ko ñoo ñoo nas ko aaya yii ñeneen ñëw na leen déedéet du yooyu yeneen yii la gis nga bi ñu xoolee li nga xam ne mooy ayaat yi nga xam ne nasq nañ ko ci alquran ak yi leen nasq motoon nañ juróomi téeméeri aaya waaye gis nga ñuy mu am ay ay wax yu ci am gis nga boo gisee nu mu tudd Ibnul Jawzi wax na ko ci téereem ñenn ñi nga xam ne wax nañ ci ci nasqul alquran ak ku nekk ñaata aaya la wax ci téereem bu ñuy wax nawaasikul quran bi Ibnul Jawzi safha xamsumiya wa xamsata asara boo fa demee taban madinatul munawara euh, jaamia islamia bu nekk madinatul munawara boo demee mi ngi wax ne euh, ñu bëri euh, moom ci boppam moom Ibnul Jawzi wax na yi nga xam ne moom lañ mooy nawaasix ci alquran yi mat na deux cent quarante sept aaya yoo xam ne dañ leen nasq ci soixante deux saar loolu la la wax nee na tim Ibn Hazm al ansaar al ansaar yi moom nee na aaya yi nasx toll na ci deux cent quatorze aaya Ibn Salaama wax na ne aaya yi nasx mën na deux cent treize Ibn Barakaat wax na aaya yi nasx mën na deux cent dix euh, Makki bin Abi Taalib moom nee na aaya yi nasx deux cent kese la euh, Abi Jaafar an moom nee aaya yi nasx cent vingt quatre la nga gis ñoom ni ñu wuutee te ñoom ñëpp seen ay yi ñu indi yooyu dañuy dañuy dañuy day wuutante nga xam ñoo xam dañuy indi ay yi la yi lañ ñoo ñeneen ñëw contre yooyu indi yeneen yu bokk tëb yooyu soo demee ci Abdul Qahir al Baghdadi moom nee na soixante six aaya rek lañ nas nga dem ci euh, Suyuti ci al Itqan téere bi naa Itqan fi ulumul Quran Suyuti moom nee na vingt vingt aaya dong lañ nas nga dem ci Cheikh al Hasan al Awadi al Awadi moom nee na vingt deux euh, euh, vingt deux kii vingt deux aaya la nas ci Fathul Mannaan téere bu ñu wax Fathul Mannaan nga dem ci Zarqaani boobu nga doon wax fi Manaahil Irfaan moom nee na moom juróom-ñaari aaya dong moo am na nasaxa ci alquran nga dem ci Moustapha Zayd nga xam ne moom ci risaala doctorat am bu nga xam ne bi ñëpp a koy coow ci alman nawaasiq wal mansuuq moom nee na juróom-benn aaya dong nga am nasq ci alquran nga dem ci docteur sa Saadou Jalal moom nee na ñeenti aaya dong moo am ci li nga xam ne mooy nasxul Qur'an donc lii te ñoom ñëpp dañoo wuute ci ci ci ci ci ci nasxul Qur'an yi léegi nag question boobu question boobu nga ma doon laaj fan laa ko jëlee euh, tafsir boobu maa ngi ko jëlee ci ku ñuy wax docteur Ali Juma euh, muftu diyaaril Masra Misra ku ñu xam la. nekkoon mufti euh, boo xam ne bi aalam bi yëpp ko xam xam-xamam ñëpp ko naw nekk moo tarafan aalamiyan jàngal na ma man nii euh, kooku bokk na ci ñi nga xam ne nee nañ nasqa amul ci alquran loolu ma doon wax moom wax na ko euh, ku ñuy wax Adnan Rifaay wax na ko pour nga jël ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi nga wax ñu wax nañ ko borom xam-xam yi nga wax na yi nga xam ne wax nañ ne nafq amul ci alquran jàppal bokk na ci ñoom abdullahi bun siddiq al-Gumaari borom xam-xam bu mag la euh, nekkoon al azhari ci téeram bu ñu tuddee zawqul xalaawa fii bayaani istixaalati nasq tilaawa kooku nee na nasq amul ci quran abu muslim al asfahani boobu ngay wax kooku moom <laughs> yaa ko wax xam nga ko moom yaakaar naa si ñi nga wax ñëpp moom rek laa ci xam ak Mouhamad Abdou moom Mouhamad Abdou moom it mufti eh, Égypte la woon moom it nee na reconnaître ne nasx am na ci alquran Mouhamadul eh, alxudari beek eh, moom it téere bu ñuy wax usulul fiq fi kitaab usulul fiq moom it am na ci téere bu ñuy wax usulul def na ci ne nasx amul ci alquran Mouhamadul Ghazali bi ñuy wax xam ne ñëpp xam nañ ko ci téere bu ñuy wax. nazaraat fil quraan moom it d'accord ne nafka am na ci alquran euh, Abdul Mutaali Jabri moom it am na téere bu ñu wax laa nasqa fil quraan limaza moom it nee na nasqa amu ci alquran docteur Ali Juma boobu ma lay wax ne ci la moom laa jëlee woon loolu ma doon wax loolu téere bu ñuy wax ne an nasqu inda al usuliyiina moom it nee na nasq amul amu ci alquran Ahmad Xijaaji boobu nga mujj wax saqa moom moom it bokk na ci ñuy wax loolu ak ku ñuy wax Mouhamad Hidaya ak ñeneen ak ñeneen Adnan Ibrahim ñeneen ñu bees ñoo xam ne ñu ñu bëree bëri ñoo xam mënu ma leen a lim ñooñu ñëpp nee nañ nas ko amu ci alxuraan kon lii may wax ndax man suma xalaat la wala wax waxi borom xam-xam yi la ñaata borom xam-xam laa la limal est ce que yow man ngaa indi lu toll ci li ma lim nii ci ay borom xam-xam ñu wax ne nas ko amu ci alxuraan yaakaar naa ne mënuloo ko. bismillahi alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala nabiyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kon mbokki kàddu yi may mujje li ma tàmbali woon ci njëlbeen loola rekk lay mujje sama gaañ yi li li leen di jumloo mooy duñ bàyyi xel ci ne nasq jiha ba muy amee ci yàlla lay bàyyi ko muy texte bu leer gu bàyyi ci borom bi subhanahu wa taala wala mu bàyyi ko ci kim yónni woon kon foofu taxarif mënu faa am foofu baatil mënu faa am foofu ay caaxaan mënu faa am bu doon waxi fop fop lenn fekk waxi nit loolu caaxaan la waaye su fekkee ne wax yàlla mi bàyyi ko ci bi mu bàyyi ko ci yàlla mooy gis ne lii moo yéwén ci ab jaamam mu def loola nga bëgg a wax ne ay nga bëgg a tudd mu jaradu tudd loola baatil sax mu xamara la yàlla nañ ci musal ndax lu borom bi tëral borom xam-xam yi leeral ko ne lii la nga ciy tudd ay baatil di ko di ko laytoo ci ayib may baddalu xawlu la dayya di wane ne kon léegi suñ borom day maanaa loola tabdil daf cay am te borom yi leeral la lañ ci jublu dëggantaan loolu risque bu rëy la mooy dañuy fab ay yoo xam ne nii dafa am maanaa yu mëndu ñu fab ko di ko di ko laytoo mboolem ay yi nga xam ne moom la indi yëpp muy isbaat nask man dama koo taxaddi wax ko nekk mboolem borom xam-xam yi nga xam ne ala marril usuri wa taarix mu di ma limal ay benn benn nit naa ma léegi xam nga ñu ñu ñu ñu ñu ay borom xam yu bari bari yoo xam ne toll nañ ñi ma xam man ñi ma xam mooy jumhur bépp rek mboolem borom xam lislam yëpp loolu lañ saxal ay benn benn ngay tudd mooy yii kooku ñu mën a lim la waaye man ñi ma ñi ma xam kenn dee mënta lim jëlal tafsir bu la neex ci tafsir yi nii ñu la nii ma leerale fa la ñuy jaar yow kay li ni indi moo raar moo tax ñuy laaj fan nga ko jëlee ñaareel ba mooy nañ xam ne yàlla mi wattu alquran ba ak manqué du ci jaar inna nahnu nazzalna dikr ci même ay bu tontu wa inna lahu la xaafizoon wattu gi mi wattu alquran nag mi ngi koy wattoo ci dënnu borom xam-xam yi ndax ni hadis laajee ay ulama istilaax yuy jàngal lan lan moy wax yonent bi noona la alquran laajee ulama tafsir boo xam dañu ne taxasus ci ulumul quran di ñu wax lam demee nam demee ñu cay sukkandiku wax nag ci njëlbeen nag boo demee wuute am na ci mën na ko cent pour ndax am na dañ ne masalatun saika bayna ulama ndax coow la def caa bëri buñ demoon ci téereb bi ma tim nii muy téereb dirasat fi ulumul quran docteur Mouhamad Bakr Ismail taarif ko maa ngi wax ci biir ne li ëpp ci li indi coow li li ko indi mooy di xatal lu yaatu lu xatal lu yaatu woon li ëpp mi ngi juddoo ci boy yi ngir kon mboolem aay yu mu fi saxal yépp andi ko ngir bëgg ca sukkandiku pour wane nekkat kat nas ko amul ci alxuraan yooyu borom xam xam nañ ko leeral nañ na mu demee ci seen biir téere tafsir te ñu saxal nas ko bu ca coow amee kay ak weddi am ma nga jëm ca nasqul qur'aani bi sunna te loola am na ñoo xam ne ñoom ñi ngi koy saxalee nekkat kat sunna boobu bu dee xadis ñaari anam la bi bi bi bi sunnatil ahadiya boobu dañ koy radd moom waaye bi sunnatil mutawatira ñoom day dañ ko ñenn ñi nangu nañ ci waxal naa la ci ba kenn ci ci ahmad maliki bokk ñu ko nangu ngir wane ne wax yu la kul benn mbir wax yi ndax in huwa illa wax yu yuha hmm? wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wax yu yuha kon ay ya ñuy andi ñoom ngir bëgg caa sukkandiku ci nag amul ci alquran ña koy saxal gis nañ ko waaye dañ ko dañ dañ caa leeral man li ma bëgg li ma jàppoon fef moom la ci lay insisté andi ci mooy post maanaam taxsis ndax taxsis wala may dañoo wax ne bu njëkk nask lamboon na taxsis ak eh, mboolem ay taqyira itlaq yëpp daf ko daf ko daf bi daayira bi yaatoo daf ko ëmbaale woon waaye biñ taw si amaat bi mu xam gone ñu mujj ñëw biñ ñëwee xam daayira bi ci lañ génn taxsis séparé ko ne waxoon naa ci junj ne diggante taxsiis sa farq bi jaar ci diggante taxsiis ak nas ak tudd nañ ci ñaar fukki mbir yoo xam ne benn bu ñu day séparé diggante fawaariq la buy jaar ci diggante nas nas ak ak ak taxsiis mais pour leeral ko kon yi muy indi ngir di ca baas yoo banaan day dàq nas yooyu borom xam-xam yi indi nañ ko xam nañ ko wax nañ la ca leer surtout ay bi mu andi yàlla mooy al alquran waaye yi mu koy garder da caa bokk ñu ngi koy garder ci ci dënnu borom xam-xam yi te borom xam yi ñoo ñuy leeral nag ay yi nam demee te lañ leeral la ca sax mooy nas da am ci alquran ay benn benn ñoo koy dàq te képp ku ko dàq ci buñ la boolewul ci madrasatu madrasatu yoxut boolewul ci madrasatu raafit kon yaa ngi dugg ci madrasatu abu muslim al asfahani bi te abu muslim al asfa abu bakar al jassas da ko rad rad yu métt boo neen dafa puroo ci ci ijma ñëw nag ci jaar ci ci seen lef moom mooy ñi nga tudd fii li ci gën a doy waar nag mooy yow téere yi nga tudd fii di ko di ko di ko leeral yépp yow da nga maa ngi naan la fan la fan la mbir mi nekk ngay ñëw di ma sardul ay tur di ma sardul ay téere loolu du taw seex si ma loolu du taw ndax man ngaa wax ne man nga ca téere ba tiim ko mais dangay indi téere bi at paas doo tudd ko mu leer man sooy dalaak moom soo ne ma andil paas baag nangam du taxaw ndax dama koy waajal waaye bu naan fu ne ngay tudd ay téere di ma tudd mu jaradu zikri kutubin rek kooku nekkul taw seex waaw la ca desaat mooy lan mooy ñii nga tudd fii muy si Ali Juma doon maam malgré que ixtiraaf na seen xam-xam si Ali Juma al Ghumari al Asfahani Mouhamed Abdou dégg nga al euh, euh, al Khudari al Ghazali ak Hijazi boobu nga tudd moom dégg nga àdduna Ibrahim Sour Abba moom moom dama ci bañ a tax waaye am na yeneen yu ci nekk moom ah. mais nag ñoom ñii nga seen nii ndax dañ leen lëkkale suñu ulamaa yi nga xam ne dañoo saxal nask buñ leen lëkkalee duñ doy. kon nasx dafa sax ci alquran dégg naa ko muy wax ne lépp lu muy wax ci domaine bii mi ko sukkandikoo ci boromi xam-xam waaye nag nii muy débayee moom ku xelam ñaaw dëgg dëgg dëgg dëgg wala mu ñaw dana jàpp ne day sukkandiku ci xelam ndax duñ ko laaj lu mu andi ndax débat doo ko defee doo boo boo ko seqee koo xam ne ko man dama am dama la biir dama am yi moo tax may bàyyi lu bëree bëri mais soo ko seqee koo xam ne dafa weex xat ba noppi soxor teg ci doo buuse te tëjallu maanaam suñ Mouhamed Guèye mii dafa am yërmande waaye li waroon ne am mooy suñ ne la loolu fan la nekk nga ne nangam la nekk soo ko nekkul dañ lay tongal ba nga andi ko ñu door a jàll feneen ndax su boobaa kon léegi affaire bi day organisé ndax man pour man awma iqtinaa ci ne lii fa la nekk ak itam nan la fa nekkee ndax man naa am yaa ko dégg yaa ko déggut man man mën nga mën nga tim texte ba te a muy wax mën naa nekk kon boo indee boo indee texte bi loolu lay jël ma tim ko ñu tim ñu xam ne lii la aw kay kon moom mu jeex booy booy débat noonu lay demee la ci des mooy lan waxi man man moom jox naa la respect jox la respect mooy waral maanaam may nangu li ngay wax lee léeg waaw kon jox naa la respect mais mboolem yi ngi fi wax yépp nag sëñ bi jox naa la respect lool warmaal naa la lool tekki nag waaye nag lem naa ko ba mu jekk nag tegal la ko ci sa tegg nag wax dëgg yàlla jaw ndax moom loolu mënuma ko jàpp li may jàpp daal sa boroom xam-xam yi nga fi indi ne ñoom nga basé wu ci ñoom tudd seen i wax ne ñoom ngi su ma leen lëkkaleeg jumhurul ulama yi nga xam ne ni mboolem téeri tafsir yi seen wax nga cay fekk muy saxal loola duñ doy kon nag booy jàpp bëggoon naa am laaj bu ma lay tabax laaj mooy ndax yii ngay nekk di ko défendre nii loo gëm la muy muy pas-pas gëm ni moom da nga ko gëm nii rek ni amu ci wala da ngay def da ngay da ngay débat pour pour pour scientifiquement pour xam-xam feeñ waaw ndax man pour man jàpp naa ne doo fekk nag jumhuru ulama yi nga xam ne dañoo wax seen wax sax kër yëpp mu ñu leeral ko mu sax ca nga ñëw di ko fa bàyyi di jël ay ay afraad yoo xam ne ay benn benn la yoo xam ne am nañ seen position bu ngeen buñ leen xamee waaw maa ngi sant mboolem mbokk yi nga xam ne moom ci débat bi malheureusement débat bi ni ma ko bëggee woon amut noonu ndax ni ma bi ñu doon so soxla dafa dafa daf ci des bu a maa ngi sant bu baax suñu Mouhamed Gueye def na effort am bu baax a baax dem ci lay kàttanam ñu ngi sant ñëpp di gërëm kon sëñ Baba li ci def dañ ko mottali ji bis incha allah ndax wéy débat bi des waxtaan bi des fil xawli baqiya ñi ngi jégalu mbokk yëpp nag di jégalu sëñ Baba ko fekk dépassé naa ko ab jo ab ab ab la mooy ab joor joor ma bëgg na waxee du ma wax incha allah kon nas lu sax la ci alquran firnde yi saxal nañ ko kenn mënu koo daq te ñi ëpp ci ñi koy saxal ñu gën a ëpp fuufu ëpp doole ci ñi koy weddi ñi koy ay benn benn lañ surtout yu mu pendi nii kon ñi ngi sant mbokki di gën a mbokki asalaamaaleykum Eh, tàggoo woon naa mais danaa ñëwaat waxaat tuuti de parce que yaa ngi profité rek di dem wala boog ñu continuer ba fajar bo waaw yaakaar na heure bee jeex rek hmm? <laughs> man li ma la ma li ma la ma la borom xam-xam yëpp di ñu ma jëlee yëpp di loo bëgg ma nimal la téere bee safxa bi kon doy yomb ci yow demal nga liiri comme ni may liiree waaw na ngay dem liiri comme nu may liiree comme wax naa la téere bi boo demee téere bi kay Maodo bi xam ko nga demee nga liir Maodo bi yëpp da nga koy gis nasxul quran lañ doon wax wax naa la téere bi dama nga xool faxres bi nga xool nasxul quran nga liir ko boo ko liiree da nga ko ci gis ma lay joxee safaak yooyu yomb yooyu mooy lan man soxlaw ma ko ci yow mosuma koo laaj ci yow kon demal nga kii nga ne naa naxam nazzalna zikra wa innaa lahu la mooy xef dañ ko yàlla daf koy xef si suduril e, muslimina ah yéen ji yéen yéen ñi wax nas de yéen yéen yéen a wax ci hadisa Aïcha na benn euh, kayit goo xam ne gi radaat al asra ñoo ci nekkoon euh, nu mu def benn duway boobu ñëw bi nga xam ne yonent bi mi ngi nekk ci jamonoy feebara benn duway ba moo ñëw lekk la ca nekkoon ana boobu alquran ji nekkoon ci sudur yi anañu kon bañ dugalaatuñ ko ah hadisu anas boobu di wax naan saar woo xam ne guddee woon na guddoon na trop ba toll ni baraa dem na yoonam ah ngeen kon li nekk ci suuf doori naa na xam na zone zikr wa naa loola xaawisoon li nekkoon ci suuf doori kon lu tax génn wuñ ko ñu bindaat ko sëñ bi soo bëggee ñu egg li ñu dem ba fajar man li ma yore xaju ci yow dégg nga la ma wax <laughs> maa ngi jégalu nag. aay bi kañ la wàcc aay bi ci boppam kañ la wàcc. ndax maarifatu sababu nuzul ak dafay baax dafay baax lu ay diggante la wàcc ak li nga koy lëkkaleel yow ma dellu si waat yi it nag bu ma dellu si waat ci débat yow koy def euh, maanaam euh, talent bu dawra daxiya fi ne nii xeexum jaagoon ko boo def fi ne nii tamit ah. bu ma dellu si dama damay dallu fi ne sonn na lool fi ne ah kon bu ko defee mi ngi noonu ah, ñu bëri dañuy yaakaar ne sama xel laay waxee ak dëgër fit <laughs> non non non ma sama xel ci benn xam-xam bépp xam-xam bu may wax euh, suma xel dafay jël la la gën a dal ci xam-xam boobu ma jël ko lu gën a dal sama xel ma jël loolu waaye ci ay boromi xam-xam laa koy jëlee tëbatu ma rek waxee sama xel comme nu ko ñenn ñi waxee am na benn audio boo xam dama ko déglu barki démb am ku ma ko yónnee dénk ko ko ndax baat boobu la wax na Baba Diaw moom du wax li ci téere yi moom fala bëgg a waxee waaye baat bi ma ci gën a neex gën ma ci metti moo di ne xanaa xanaa ci alquran rek donc loolu neex na ma ndax alquran mooy téere bi ñu war a waxee li ma ci metti mooy xanaa alquran rek mel ni ku koo xam ne kii dafa mel ni ku xaw a minimiser alquran ne comme su ma waxu su ma waxul yeneen téere yi daal même bi ma waxee alxuraan kese safal xoram wala neexul loolu moo tax ma jël audio bi am ku ma ko dénkoon pour bañ koo fàtte ndax bëggoon koo wax waaye musuma waxee sama xel ci xam-xam amul lu ma mas a wax ci xam-xam fii te ay borom xam-xam jiituma ci c'est-à-dire euh, xëy na nit ñi ni ñuy gëstoo ñoo bokkul waaw nit ñi ni ñuy gëstoo ñoo bokkul et suñu xam-xam dafa yaatu te gudd te ku nekk tim ak fa nga koy bunt ba nga koy duggee xëy na loolu moo wuute ba tax na man bunt bi ma koy duggee xëy na noonu lay mën a demee te aussi li ma gën a neex ci xam-xam tim mooy su ma sañoon euh, bu may wax may waxee alquran su ma demee bu mënuma waxee alquran ma waxee sunna su ma ñàkkee yooyu soog ñëwee ci waxi borom xam-xam yi parce que damay liir waxi borom xam-xam yi donc kon euh, bu may waxee alquran en général bu may waxee alquran ñàkkaguma fu ma mën a waxee alxuraan ba tax ma dugg si ñooñu waaye bala maa bala maa euh, wax dara wax dëgg yàlla am dinaa ko xoolaat bu baax a baax euh, maa ngi jéggulu bu baax a baax di sant ñëpp di leen gërëm di jéggulu nag su fekkee ne am na benn baat bu ma rëcc te jubluwuma ko maa ngi koy jéggulu mbokk yépp di si jiital Cheikh Abdoul euh, ku baax ku yaatu ku xam naa ne bala maa kii rek mu dóor ma saalum saalum bi yow nag ma fi def saalum saalum man jolof jolof la <laughs> baax na ay yal yàlla gën a taxaw gën ñoo defal tawfiq sëñ Mouhamad Gueye ñu ngi lay nuyu ñu yoroon idaara bi sëñ Aboubacar Diallo Cheikh Ak Jibril yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara waat te di leen baalu xaq li ngeen xamaa nag dañoo amoon ngànt lu rëy rëy sax wax dëgg yàlla am sonn bi yëpp yàlla xam na ne bu ñuy bi ñuy bi ñu génnee ci suba bi bi ñuy ñëwaat dañoo njëkkante waxtu bi pour bañ mu rëcc ñu ndax ay jafe-jafe waaye sant yàlla lépp rek yàlla mi ngi ci def xéewal kon salaamaaleykum wa rahmatullah ah, dépassé woo ma benn yoon ma ne di yaakaar naa loolu waxtaan bi neex na am na solo teg nañ ko ci cadre bu normal sëñ Mouhamed Gueye réglé na ko réglation bu jaar yoon Euh, xanaa kay li ci ne li ci doon na euh, kii rek rëq-rëq mooy li nga waroon a sotti nga sottiwul loolu daal xam naa ne fi ton nii xaw naa <laughs> xaw na laa ci tuuti <laughs> ndax da yore lu bëri la waroon a sotti te dafee xajut ndax yow fi mu toll nii sa sa tafasil yooyu nga yore xam naa ne boo ko sotti woon fii du fi xaj waaw man moo tax ma doon tënk noonu gis nga sax bi ñu kiyee noonu rek euh, nu mu tudd sax taarix bi bi ñu ko laajee mënoon naa koo tafsil comme ni nga doon tafsil waaye yooyu yaa xam na débat débat whatsapp moom noo gën a mën a gàttale rek mu gën ci waaye am na solo am na solo rafet na comme ni mu ko waxee waaye nag jum jumhurul ulama gis nga loolu billaay moo ñuy rey ñoom ñu bëree bëri jumhurul ulama nangam gis nga xanaa xamoo jumhurul ulama lu li wëral seen axtaa yu bëri mooy dafa am ñenn ñu góor góor ñi ci def ñii ñëpp dañ ñëw di koppi ci ñoom rek au lieu que ñu utilise seen xel ak seen beneen xam-xam mais dañuy koppi di koppi di coppi nag ba mu nekk jumhur ñu ne jumhur ulama fekk na wax boobu kenn ko wax wala ñaar mais yi ci des yëpp dañ koo koppi si ñoom loolu mooy problème bi mais bis nga bëri na ay axtaa yoo xam ne dañ ci jumhur ulama benn bennaat yi ñëwaat bees toj ko génn ko génn boo xam ne bii yàlla xam na ko yow <laughs> waroon ngaa boobu sama groupe maam ki nga xam ne fa lay tojee yenn bagage yu garaaw yi <laughs> yàlla baax na yenn yàlla defal ñu tawfiix jërëjëf waa kay mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen sant di leen gërëm di jiital ci cant li ak ngërëm li ñaari ustaas yi nga xam ne ñoom lañu ñu dalaloon muy sëriñ Abdul Ahad ak sëriñ Baba Jaw ah, wax dëgg si yàlla ah, ñëw nañ ci ànd ak ñàkk jot lool waaye macha allah ñi ngi jéggalu nag bu baax a baax a baax ndax waxtaan wi ni ñu ko bëggee woon dëgg-dëgg amee wu ni xañ na li ko waral bokk na ci ni audio yi doon wàccee ci commencement bi waaye itam bokk na ci itam mawdu bi tamit moom moo tëddee nii dafa nekk mawdu boo xam ne fii dafa yaatu lool sax dafa yaatu lool lool lool lool lool sax bari na lool lu des ci waxtaan wi loo xam ne fii euh, xaajuñ sa àgg loolu sax moo waraloon ca commencement ba ñu jëloon rek benn pàcc bu ndaw di pàcc bi mujj ñu ne woon loolu la ñuy waxtaane waaye nag ginnaaw bi changement amee ah ci lañ ne nañ ko waxtaanee d'une manière générale du sifa amma moo waral euh, mu mel nii waaye ala kullin ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di wax ne lépp loo xam ne si jub na ci ci borom bi la waaye lépp loo xam ne itam dëng na ci euh, ci man mii euh, doon ko diriger la waa di santaat bu baax rek suñu ñaari ustaas ndax dëgg-dëgg waxtu wi lu muy néew néew néew wàcceel nañu ci xam-xam bu yaatu lool ci wàll wi wax dëgg si yàlla ndax képp koo xam ne am na loo ci xamoon a ah, poussé nañ la pour nga gën a mën a dem gëstu ji naka noonu yi tamit képp koo xam ne si amoo ci woon xam-xam ubbi nañ sa bopp ba euh, ëllëg boo jugoon di jàngi xam-xam bi di nga xam fi ngay teg sa tànk xanaa rek li ñuy proposé mooy mawdu bi mawdu bu am solo la mën nañ koo continuer di ci def waxtaan waaye faw ñu def ko ay pàcc pàcc mun na nekk ñeenti pàcc nga xam ne pàcc bu njëkk bi dañuy waxtaan rek ci wàllu nasx ndax am na ci alquran wala déet beneen pàcc bi ñu wax ci nasxul tilaawati ma al beneen pàcc bi ñu wax ci nasxul tilaawati duunal xukmi beneen pàcc bi ñu wax ci nasxul xukmi duuna tilaawa ndax yooyu yëpp dafa am lu bare bare bari bare bari loo xam ne fii war nañ koo xam ci wàll wi suñ ñaari ustaas yi boo gisee ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk taxawaay bi nga am nga amee ko loolu du ci ñoom dafa fekk na ñoom ku ci nekk ci masaadir yi ngay jële moom moo waral lu mel noonu ndax xam-xam dafa nekk loo xam ne si chaque jour dafay am tatawur dafay am évolution dafay euh, chaque jour dafay jëm ci kanam dafa am ah. ulamaul mutaqaddimun am ñuy tuddee ulamaul mutaaxirun léegi nag ku ci nekk yow dangay am sa nazariya bopp looloo waral werante wu bari di ci am te li gën a waral werante yu bokk na ci ñu gis fenn fuñ naan aaye bii dañ ko nasxu waaye yonent bi moo ko wax saraxatan ne aaye bi aaye bee moo ko nasxu comme ni ñuy gisee ci alquran ñuy wax ci tafsir quran bil quran ñuy wax ne aaya bi aaya bee moo ko tekki yonent bi moo ko tekkee woon nangam loolu duñ ko gis ci alquranul karim maanaam mbir mi dafa jógewul ci yonent bi mubasharatan te comme ay boroomi xam-xam ñoom ñoo ci wax ku ci nekk yow da ngay am sa say nattukaay yenn saay mu wuuteeg sa moroom looloo waral mbir mi ndax souvent sax dangay gis ci benn aaya ñu ne dañ koo nasxu mais ñu am problème mu sax ban aayaa ko nasxu nga da nga dem ci kee la aaya bee ko nasxu nga dem ci kee mun la aaya bee moo ko nasxu kon wuutee gi daal mbir la moo xam ne shay'un tabi'i ala kulli ñi ngi nuyu ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu xaq ñëpp ci waxtu wi ñu jël ci yéen barakallahu fikum ñu ngi leen di ziyaara bu baax jazakum